bismillahi rahmaani rahim israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo seen jotaay mu ci de al bidaaya ngeen koy am guddi aj mu jot ci waxtu wi dellu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër jaajëfal way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 allahuma amin yàlla fekk leen jàmm xaaj mbàkk nu jotaay bi tëddee jërëjëf oustaz niñ ko baaxoo tërale rek lañ koy tëraleeti insha allahu taala ne suuti daañu ñëw ci xibaari daara ji maanaam xew-xew yi gën a ràññiku ci ay bis gi ñu nekk ak gi ñu génn buñ ca noppee ñëw ci laaj yi ñu mbokk yi bind ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr noonu la ñuy wéyale jotaay bi ba min wi jot ñu yëkkati ko ci xaaj bu njëkk bi dégtal leen xibaar yi ci français ak ci wolof dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñi nekk ci biir réew mi mën a woote ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ñi nekk ci euh, noonu lañ koy wéyale kon bu xaaj boobu jeexee ñu daal di ñëwaat ànd ak euh, mbokk yi ci tafsiru quranul karim bi ñu amoon amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom dégtal leen alkitab moom itam di bi ñu amoon ay bis gi ñu génn noonu la ñu wéyale jotaay bi ba 5 jot ñu déglu alquranul karim 5 heures 30 ñu ànd déglu almisbaax 6 heures ñu ànd ak mbokk yi déglu waxtaanu fajar yi tey di alxames kon fajaruk àjjuma la waxtaanu fajar yi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boromam subhanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëddee fa jazakallahu xayra jërëjëf oustaz jërëjëf ci nuyoo yu am solo yooyu nga ubbee jotaay bi eh, bég nañ ci lool ak eh, ruq-ruqaan yooyu nga dugg yëpp ak soppeek am di jàmm yooyu nga xam ne nuyu nga leen mais bi yoon Saliou dafa yàgg càll bi de waaw Saliou de daa mel ne tukkeem bi moom tuwarkal la naan la demoon Dubaay <laughs> Saliou suñ bi nee na foo nekkoon <laughs> Dubaay nga demoon wala fan <laughs> nee na mi ngi woon Europe rek. Europe ah moom tubaarkàlla. Eh, ruq-ruqaani Europe yi daal. Europe bi am na euro. Mhm. waaw. Europe am na Europe. <laughs> ana euro yi kon. <laughs> tubarkàlla noonu baax na ñu amaan mbégte loolu moom it ci teewaayam. wallaay ci wéttalam ak bokk gu mu bokk ci jotaay bi. ndeysaan tubarkàlla tubarkàlla. Mm, tubarkàlla soxna Fatou Congaan ab jigéenam la bu nekk foofu ci France oustaz moom it ci sa soppe la bokk nee na ngi lay nuyu bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan sopp naa ko tubarkàlla. macha allah. alhamdulilah. tubarkàlla na ngeen def ak coono yi. ñoo ngi sant yàlla bu baax sëñ Mbacke. bàyyi nañ ci jàmm baax a baax. waaw ñoo ngi ci jàmmi ndongo jàmmi ndongo. Mhm. alhamdulilah. jàmmi ndongo. <laughs> jàmmi ndongo di nab nabi rek. waaw wér yaram ti amoo xaalis mooy jàmmi ndongo. ah d' accord loolooy jàmmi ndongo. Mhm. wér gi yaram te amoo xaalis. waaw mooy jàmbi ndongo. <laughs> ndeysaan. Mhm. est ce que. nag day boole wér gi yaram ak xaalis. ak xaalis. xanaa loolu tax sëriñ si mën a xat ñoom di tëjoog euh, kii daal tuuti waaye ab donga moom daa mel ne du tëju de. ah du tëju parce que comme amagul barke lay wër il faut muy am yu muy doxali boppam. da koy lijjanti ji da koy lijjanti du baax. macha allah. <laughs> tubaarkàlla daal kon mooy koo xam ne am na jàmm. waaw wér na waaye yorut. waaye yorut xaalis poche dara nekku ci. mu ngoog <laughs> loolu jàmmi ndonga. est-ce que mhm. baax na réew mi. réew mi de mi ngi riir rek. Hmm. tabarkàlla ñoo ñoo jëg jàppal bàyyil daal moom. xumb na de. bu doon tax dem nun sunum réew mooy jël pee ci réew yi. Hmm, la de ci côté yëpp nag. dëgg la de waaw. dëgg la ndax nun daal moom yëf yi. Hmm. tabarkàlla. Ah, waaw waaw. macha allah mu yéeme lool. <laughs> tabarkàlla ñaare nag. réew mu yàlla def muy ñuy wax. du bëri kurpañ. daawu ko bari ndax wax ji day yóbbaale gaa yi. xeexu diggante yi. waaw bu wax bëri rek du am. dëgg la waaye kooku rek. jëf moo tax ñun wax ji def ci baax dëgg la ñu ngi fegal yu bari mm-hmm. waaye wax ji nag bari na mm-hmm. yàlla xam na ko dëgg la waaye nag mi ngi feg yu bari nag dëgg la waaw dëgg la bari na lool de moom bari na lool daanaka boo taalee rajo yi dégg ñuy coow waaw maanaam te day mel ne coow lu ñëw rek leneen coow ñu koy fàtteloo daal. sa ça noonu la noonu la. Hmm. ñu nekk ci coow lenn. Hmm. leneen ñëw tax ñu fàtte coow lee. ndeysaan wala bu ñu ko fàttewul mu wàññeeku. leneen ñëwati. muy lu yéeme. waaw na lool de. tubarkàlla wallaay ndeysaan xam naa ne daal euh, noonu rek la demee moo tax itam oustaz ci coow coowaan yooyu sax ñaare mooy actualité mhm. moo tax saa yu journaux yi xëyee am luñ bind mhm. gars yi revue de presse kon nit ñi déglu ko <laughs> bu ñu xëyee itam ñiy def journal toggub journal dootu leen jafe ndax saa yu ñu xëyee rek amee xew-xew yoo xam ne moom la ñu jël teg ci taabal bi loolu daa mel ne moo ko àddunaa ànd moom kay réew mu nekk ay xeeti xew-xewam daal mu nekk ay xeeti xew-xewam mhm. ñool ñool ji jàppal bàyyi. dëgg la dëgg la eh, RP yi fii journaux yi fii da nga xool li xibaar lépp. te taxul xibaar doy. wallaay wallaay. télé yi ñaata lañ léegi. bari nañ tey. rajo yi ñaata lañ léegi wallaay bari nañ bari nañ ah, bari nañ waaye teewul xibaar doyut. lool lool dëgg la. lu waay jël rek xëpp ca tabarkàlla. Mm-hmm, mm-hmm. te loo ne bu subaa laa cee wax. Mm-hmm. tey lay xewi. dëgg la dëgg la loo ne suba laa ci wax tey lay xewi. tey lay xewi. ndax beneen xew-xew mu ñëw tax ko mu xew xewi ko moom. Mm-hmm. Mm-hmm. boo see wax nit ñi dañuy yëg dañuy yëg ne léegi. yaa ngi def hors sujet. Mm-hmm. ndax lii xewi na bu yàgg. waaw mooy yëgoo xew. am nga yëgoo li xew bi ñu ciy wax. macha allah am na solo de oustaz. jërëjëf ñoo ngi leen ci jaajëfal baax ci taxawaay yooyu ak actualité beeg ni mbir yi di yëngoo yëpp rek. alhamdulilah ngeen di ànd ñoom bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi dalal société bi ci ay pàcc pàccaan yu bari. waaw waaw loolu de moom la ko yoon yëntu ba bëggee woon. ne ci biir nit ñi. tey muñ seen benk ñenke yi mhm. moo ko gënal beru dëgg la moo ko gënal beru waaw hmm. yonent bi hmm. nga ne ci biir nit ñi hmm. tey muñ seen benke ñenke yi moo ko gënal beru kon du caagi ne yëf yi day kii rek kenn ku nekk dem toog ci ruqam ak yooyu déedéet moom bëggewu ko noonu moom bëggewu ko noonu sunu mbokk ma def daan lépp li bu am solo ndeysaan sànq suñ Issa bu jam ñaaji ñu ko fàttali sas Aline dëgg la mu ne boo yoroon kilo or. Hmm. romb benn foos. Hmm. nit ñi ne ca foos ba sa kilo or ba na ca pëy. Hmm. te yaa ngi ko takk ci mbuus nooy def. <laughs> fekki leen ja ngay def <laughs> mu ne fexe ba jot ci rek. fexe mu ne ko nag jullit boo gis rek jàppal ni kilo or la. jullit boo gis. jàppal ni kilo or la. te boo ko séenee fu neexut yàlla. jàppal ne daanu ci foos ba. waaye ak lu foos ba mën a xayee di xayee di moom jullit bi kilo or la mu ne ci biir rek boo ko dindee rek mu baax dindil te fomp allahu akbar ah misaal moomu xóot na yéeme na waaw ah, ne ko jullit boo gis mhm. mu nekk ci lu mu warta nekk baax mu dugg fu mu warta dugg mhm. jógal ne ma nga ca foos ba dëgg la nag comme kilo kilo or bi mhm. jaral na la taq na la ŋacc ba jotaat na la kub jullit jaral dëgg la waaw jooju wax rëy na te bari bari am njàng la daal benn affaire la macha allah yal na ko yàlla yërëm amiin tuwarkal la waaw ah, waaw mag ñooñu daal tuwarkal réew mi daal ku baax yàgg na fee jaar eh, wallaay ndeysaan waxee nañ ñu ne nag ndax bëgg nit ñi yeewu damaa xamul lu nu dal ndax sëñ Mbàkke mhm. defar nit te seexlu ko moo yombut waaw defar nit te seexlu ko moo yombut mhm. nit kenn ko seexlu baa du koo seexlu doo ko mën a defar doo ko defar waxoon naa la ko jox sunu tafsir ba mhm. bu gone jógee ca fa muy jànge yàqi tànkam hmm. ñëpp a koy seexlu wallaay directeur école ba ba hmm. ko doon jàngal hmm. moroomam yi ku mu romb ci mbedd bi kenn rek lay jëm ci moom mu yaayam wallaahi moom bu ko defaraatee ba bàyyiwaat ko ci mbedd mi mu ànd ak ñëpp comme mel ni ñëpp moo tax nit ku ko seexlu doo ko defar dëgg dugg ci seen biir di muñ benk ñenk yi di muñ jàppal bay lii allahu akbar ndax yonent bi leçon ba mu njëkk a jàng mooy iqra Hmm. bu ñaaral ba wasbir ala ma yaquluun hmm. hmm. wasbir ala ma yaquluun dëgg la oustaz na nga jàng muñ benke ñenke yi nit ña ngi lay wax te yëg ni dangaa bëgg defar te ku defar lu mënta defar kenn dëgg la defarul ndax nga defar leen moo tax ba na ne ko wasbir ala ma yaquluun ba delsee daf na ko xum fa andir ginnaaw jàng nga defaru nga koo defar mu defaru mhm. defareel xum fa ansir defareel defareel est-ce que ku defaru ba noppi da ngay waaw kon beru di defar yomb na waaye nag euh, defaru ba noppi dem defare ji moo gën a jafe waaw ku beru sax du defar mhm. ku beru mhm. li man mooy defaru waaye defaree moom ku ko bëgg da ngay dem ñi ñuy defar nga defar leen xum fa ansir waaw waaw macha allah lu am solo la. am na solo oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu ginaaw bi ñu ubbee jumaay masaalikul ginaan ba noppi donte ay biss yee yëpp ak la ko jiitu moo nekkoon actualité. Mhm. keroog ubbite ga de xumboon na lool. Mhm. yàlla dogal na ñoo nga fa woon ak yow. Mhm. Eh, ci taxawaay boo xamante ne am na lool jullit di yëg ko mu eh, amoon nu mel lool waaye dañoo noppi rek war koo jàngat. actualité ba daal di mujj eh, am lu ëpp doole ca xew-xew ba fa xew daal di yóbbu lépp. ba lool sax la ñuy waxtaanee muy julli si maître Abdoulaye Wade. ànd ak euh, doomam président Macky Sall. Mm-hmm. seen diggante 2012 ak léegi amul fu ñu leen séenee ci ay bët ñu bokk ab jotaay toog. wala fu ñu yëgee ci kaw ne joxante nañ loxo. loola nekkoon lu rafet a rafet rafet man jàngat nga ciy def. waaw di ko rafet rafetlu ba fii ma toog. Mm-hmm. Mbacke. Mm. wax naa la man su ma sañoon. Mm. ñëpp lay séen. Mm-hmm. ñu bokk nekk benn. Mm. dëgg la suma ma sañoon. kon. wax naa la keroog ne la. Mhm. bu ñu nee vingt milliards lañ def ci Masalik. Mhm. jubóoli ñaar ñooñu. Mhm. léegi ñun lu ñu bénéfice la. dëgg la dëgg la la. lu ñëwati bénéfice la. dafa fekk ne xam nga niveau niveau boole leen nag. ah. waaw dimension boobu. yombut waaw bien. yombut. moo tax lu am solo la. dëgg la ak itam luñ commentaire yi ñu ci mën def. ak luñ ko mën di xeeb. moo xam juboo moo xam ñàkk juboo dëgg la bokk nañ sàppe joxante loxo wasalaam commentaire ñoom juboo woon nañ bu yàggat ñenn ñi naan lii ab diil laak mm, dañuy kompaloog wala mosuñoo dëngoog am na loolu ci ginnaaw yooyu yëpp kon amul solo déedéet mhm. inna ba'da zanni mhm. ismun ismun dëgg la gis nga mhm. defee dara boo ca gisee lu dul noona seetal sa bopp dëgg la waaw tey maanaam affaire bi Euh, da woykatu arab ba def ne hmm. isaa saa filul mari hmm. saa dununuhu nee na ku ñaaw ay jëf hmm. ñaaw njort mënoo fexe ba doo ñaaw njort dëgg la mbàkke mas ngaa lu dëng ker ga ker ga jub mënta jub di <laughs> ker gi takk ndeer la ci eh, li dëng di jeex na ba tax nañ ci rafet njort wéy ci njort yu rafet ñaanal leen wag leen waaye nit dañ dañuy war di dañu war di encourager lu baax. Mhm. tey décourager lu baaxul. dëgg la mais oustaz bi ni mu amee doole ci réew mi ba lu toll ne jumaay Masaalikal Jinaan ñu ubbi ko. ak liñ ca mën a jàngate lépp lépp ginnaaw ba mu mel ne menn njàngat rek moo ci gën a fés mooy jubóog ñaar ñii. Euh, jubóog gi daa toll noonu ci dayo wala lan moo. toll na ko di. Mhm. parce que danga koy jël ci àngalu. Mhm. ñoom ñaar d'abord ay julli lañ. waaw dëgg la. comme kon comme génnuñu gétt gi. Mhm. soow <laughs> mhm. mi it génnul gétt gi. kon jàngat seenu juboo tegtalewul ne dañoo génn euh, solof jumaa ji. waaw parce que buñ ko jég jëlee rek yóbbu ko ca politique ba. Mhm. foofu day sori. nañ ko def rek ne euh, meew mi génnul gétt gi rek. dëgg la waaw dëgg la. alxaaji Ablaye Wade. alxaaji <laughs> Macky Sall. <laughs> alaaji kay. ah <laughs> ak cheikh cheikh cheikh cheikh mun Muntaxa. waaw alaaji alaaji alxalifa cheikh Mouhamadul Muntaxa. <laughs> soo mi génnul soo mi génnul génnul gétt gi. ndeysaan. ah est-ce que. macha allah. Mhm. lu ama am solo la. Mhm. dëgg la tabaarkalla dëgg la dëgg la est ah am na solo de oustaz kon mi ngook xam naa li ciy toftalu rek mooy dugg nga ci léegi mooy commentaire yi léeg-léeg. waaw ak yi nga xam ne moom lay am yow tey politiquement. léeg-léeg ñun moom bu ñu waxtaan ci daara ji lépp lu man di xewi daara ji da ciy am njàng ñoom seenu juboo ban mën naa koo tuddee laaj bi ban njariñ la amal réew mi oustaz jërëjëf ba tax ñu def ko solo si ñu ko jox waaw xam nga hmm. boo gisoon jox ko solo hmm. mooy ñaar ñoo xam ni hmm. bu ñu dóorante woon ne kurpañ du métti ñoom ci ñun ñii lay métti dëgg la bu ñu fexee ba kenn dóor morom ja korpañ kay jàmm ñeneen ñooy. Mhm. mais ñoom depuis 2012 ba léegi ñi ngi toggoo jiit nii teew réew maa ngi dox euh, vraiment ñu ngi ci jàmm ñun ñëpp léegi nag ñu juboo ñu bëgg a jàpp ne juboo gi baax na ci réew mi day indi naataange day indi nangam lan la ñuy indi. Euh, lu mu ñuy apporteel. <laughs> <laughs> bu bu indiwul naataange. Mhm. dafa am jaww. Mhm. lu ñu tuddee jaww jàmm. waaw climat bu dal dal climat très bien parce <laughs> boobu. Hmm. loolu fi la yëf nekk. waaye du ci. dañu daal jubóo rek kenn ko kon nag defal nangam defal nangam ñu daal départ. Mhm. ñu ngi doon dox boobu ba léegi. Mhm. waaye jaw jooju dafa am solo. Mhm. mooy jaww ñu yëg ne jàmm am na. jaww ñu yëg ne jubóo am na. gis nga ñi ñi nga xam ne dañoo ci jub ci ñàkk jubóo gi dañ ci am ay retombées. ñoom jubóo gi du doon arrangé. dëgg la bu ñu sañoon loolu loolu du am. waaw donc am gi am na solo. am na solo bu baax a baax a baax. macha allah te itam ku ci nekk ci ñoom ñaar da nga yëg ne yëf am na solo. Mm-hmm. su ko defee nun ñu daal ci yëg ne nun itam am na solo. Mm-hmm. waaw loolu rek la. jaww ji daal mën na cee changé wu. Mm-hmm. benn climat bu am solo boo xam ne bi climat de paix lañ ko tuddee xaw ma climat lan waaye daal am na solo ci wàllu googu. am na solo oustaz jërëjëf kon mi ngi noonu yàlla na jàmm mu jige. amiin loolu lu ñu yàgg ñaan la nag ci diggante bi. wallaay eh, ñu nekk fi rek ndax yu baree bari da cee am ku mel ni maître Abdoulaye Wade mag la. Eh, man gëj naa koo gis lool lu jiitu bisub keroog ndax li ma ko ko gis ci àdduna bariwut waaye keroog ba mu ñëwee di julli si moom gis naa ko nga yëg ne mag la léegi lool nekk mag googu nag day tax eh, itam ak lim ji réew mi ak digganteem ak président Macky Sall mm-hmm. da ngay yëg ne juboo gi sax neex na ko moom en tant moom moom président en tant que nit koo xamante ne nii seen diggante daa war a tax ndax ne àdduna bindoo mm-hmm. am na solo lool ak itam yëkkatoon wax ci moom wax mhm. ci teeyam mhm. wax ci liggéeyam mhm. wax ci yëpp kon bu ñol ñol amee nii seytaane bëgg caa liggéey bu juboo amee seytaane dana jël ay bagaasam dem dëgg la dëgg la barka la seytaane kay keroog moom mer na lool waaw waaw ubbiteel jumaa ji moom def na fi ay jeexital yu rëy rëy rëy rëy ayu saminillahu inde jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali jeex na jeex <laughs> kay waaw macha allah iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali yaa wali mooy waa ji daag waajaa ngi dem mm-hmm. nga woo ko mu ñëw nga dóor ko kurpañ mm-hmm. loolu mooy yaawali mm-hmm. wala ci ngeen baal ci misaal mi kay ngay futbal dribble nit waaw ba noppi toogaat di ko xaarat pour mu ñëw nga dribble waat waaw moom la ñaan di koy dëpp ka dippi <laughs> ah, nga korosete ko mu dëpp mu ñëwaat nga nga raket waaye yow <laughs> est-ce que loolu la yaawali loolu la yaawali est-ce moo tax comme Iblis jóg na fa. Mm-hmm. jubóo yi kii la mm-hmm. jubóo kii ki jubóo kii. kii nangam ak nangam yëpp moo tax jubóo yi bari na lool. gisuloo ci Mbàkke. Mm. ñu jullee takkusaan maanaam ba jant bi bëgg a so. Mm-hmm. nga jékki-jékki di dégg astafurlah azim la si laa ilaaha illa huwa. wallaay ndeysaan ilaahu ayul qayyum wa atubu ilayhi. ci mm. te te te. xadara jumaa foofu. waaw waaw ci biir jumaa ji. waaw. keroog man daal xam naa saytaane mer na keroog. mer mer na keroog. daan ñu xuuxale ku ne mën na la yaani ci dëgg tey ñu booloo. bu doon 2-0. Hmm. bu doon 3-0 dóor nañ ko keroo 4-0. dëgg la de dëgg la ndax yu non affaire yeneen la ci ci ci biir sëñ Oustaz si rôle bi jàkka mën a boole boole gi nga xam ne dafa rëy lool ndax keroog dañoo toog man ak yow mhm. ñu gis ki nga xamante ne mooy président Idrissa Seck toog waaw nes tuuti eh, maître Madické Niang ñëw toog waaw nes tuuti ñu mi nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoom koo ci doo ko nuyu ndax coowul Aly Ngouille ministre de l'intérieur moom mi mu ñëw toog ñoom ñëpp mel na ay doomi bàjjan toog di waxtaan Oustaz ah, waaw léegi xanaa jàkk moom mooy li man a boole ñëpp nag moom waaw law anfaqta mhm. ma fil ardi jami'an mhm. maa allafta bayna xulóobihim wallaay walakin allaha allafa baynahum waaw mm-hmm. yàlla mun a doyu moom xëy mm-hmm. yéen nag bu ngeen jëlul ak doog li ci biiram lépp pour boole nit ñi dëgg la de du tax ñu booloo du ñu booloo ndax président woote na fi dialogue euh, leader yi maanaam parti yu bare bari ñëw nañu waaye ñii ma lim nii nekkuñu fa woon jeex na yàlla mu nag doyu ko mu xëy mm-hmm. walakin fa allafa baynahum tey maa leen di boole. waaw allahu akbar loolu tax nodd gu ñu ñëpp ñëw. Mm-hmm. nga seen kii seen kii seen kii mm-hmm. ñëpp ci jàkk ji. Mm-hmm. te amul ku ñëw dóoru kuropañ morom ja. dëgg la de mukk xanaa kon oustaz sëriñ si duñ ay citoyen ordinaire. yi ñu leen waxoon maanaam buñ nee ay ordinaire it ordinaire yu yéeme lañ ndax liñ mën a dajale. koo xamante ne bi muy ñëw dëkk bi yëpp dañoo yëg ne mi ngi ñëw muy sëñ Muntaxa teeroom boobu. réew defe naa gëj na ci réew mi. réew moo dem. waaw. dafa am tudd ay intouchable ay intouchable laa misaasa lañ koy tuddee. laa misaasa. laa misaasa. Mhm. bul laal. waaw <laughs> loolu yàlla koy jox nit. Mhm. gis nga alxuraan. Hmm. alxuraan lu yéeme la. dëgg la. dafa wax ne. Hmm. Eh, yarfa illaahu lasina amanu. Hmm. minkum wala sinu utul ilma. darajaat xam nga ñaar la wax. waaw. yarfa illaahu lasina amanu minkum. door a wax wala sinu utul ilma. waaw. Mm-hmm. alisina amunu minkum mm-hmm. loolu sëriñ si mm-hmm. kenn mu leen koo xañ wala seen utul ilma mm. euh, euh, mi ñu koy xati borom kii mooy président yi politiciens yi waaw mënu leen xañ ku ci nekk cër bam am est-ce que buñ ko ko joxee rek jàmm na ñooy te loolu alxaana ko jàngale dëgg la la ñaari nit la wax de que te ñaar ñooñu la waxee na bu ñu yàqoo penc yàqu sinfaani min ummati isaa salahu salaha naasu wa isaa fasadu fasadu naas jeex na al umara wal fuqaha muy sëriñ si ak ak politiciens yi mhm. <laughs> donc loolu li si jàkk man dajale leen rassembler leen mhm. Mhm. teg leen ci wenn yoon moom rek moom jàkk moo ko man dëgg la ndax boroom jàkk moo ne yàlla moom. Mm-hmm. loolu dañu ko mu xëy. Mm-hmm. moo mën a boole seen i xol. allah allah wa shukran. macha allah jërëjëf Oustaz loolu lu ama am solo la loo xam ne it Oustaz bu ñu ko yaatalee day mel ne daara ji. Mm-hmm. ak li muy produire desut ginnaaw. ndax itam boo seetloo euh, jamono yu baree baree bari dañuy jàpp ne njàngum alxuraan ak daara sax. Euh, ay ay jeexitalam yi muy def ci nit amul solo. waaye bu seetloo ci réew mi li fi waa daara réalisé. ak taxawaay yi nga xamante ne moo am ci jeexital yooyu donte nag ñëppay ràbbale ay goj waaye ñoom daal am nañ ci wàccuwaay bu buñ ko fi jëlee am hmm. buñ ko fi jëlee mu jeex dëgg la de li fi daara am buñ ko fi hmm. jëlee mu jeex dëgg la dëgg la wallaay ëpp na fee soo seetloo hmm. jamono yi nga xamee ne yu bëri dañ daan jóge ndar di ñëw di di nekk ci gouvernement bi ministre yu bëri dëgg la waaw jamono yooyu te te ndar lu gën a tuut tuut dugg wàcc wàccati. seeta lool ni ni dale woon. woo dégg këpp kees. déedéet am na yu bëree bëri doo ko dégg. loolu daara moo ko mel. ndax daara jom. fit. doylu. kenn fekku ko ci. kenn ko ci. dëgg la jom. fit fit jom doylu. kenn fekku ko ci. déedéet moom daara. Cheikh Mountakha mii. Mhm. ndax université la génne. ndeysaan. ban fag la fa génne. bii nii. ah ak yii. Ah. déedéet <laughs> déedéet. jeex na wallaay te keroog ba ñuy ñëwee fekk ko ca jàkka ja. Mm-hmm. mooy chef. Mm-hmm. wallaay wax nga dëgg. te ba noppi nag yëg na tey maay chef. Mm-hmm. waaw mu def ba noppi wënul leen na maay chef. loolu daar dong ko am. dëgg la loolu daar dong ko am. mën nañoo ñëw ca barab ba de mu ne Cheikh Bachir wax la wax la ak ñoom. ne cel waaw. buñ noppee mu def ñaan. dëgg la kan mooy génn naan. <laughs> li mu wax ak lam nangam. <laughs> waaw lam def lépp a ci ànd. loolu daaraa ko am daaraa ko moom. macha allah wallaahi wallaahi moo tax yonent bi wax ne. Hmm. ku yàlla jox alxuraan. Hmm. boo séenee kenn ñee ko. Hmm. xam li nga am ba yow sànni ko ci ñibbi. dëgg la waaw téere boobu. <laughs> macha allah jërëjëf Oustaz teral na ku ne. teral na ku ne waaw ah, teraangaam yooyu it mooy law ba euh, yii fi am yii yëpp am fi. loolu la ñu ab Abdoulaye Diabou Sénigo. Ablaye. Hmm. yaa mu ne c'est laaj bu xóot la. waaw laaj bu xóot la. yaa teel alxuraan. wala alxuraan la teel wala alxuraan la moom daa tedd ba lu ci waaye laal tedd. mu ne c'est une question. Hmm. ñu ne ko waaw. waaye ku tedd koy teral macha allah ndax loo mën a defal alxuraan rek. Hmm. da benn benn xëy la lay xëy wala ñaar rek. ñëpp dégg la ñëpp yëg la ñëpp xam la loolu laal ci mu barkeel wa hmm. la zikrun laka wa li xawmika jeex na masha allah loolu rek la tey alxuraan moom mel hmm, hmm. noonu tabarkàlla téere baa ngi noonu ñam teraloon ñooy gën a tedd wallaay eh, yemuñ sax ci gën a tedd léegi waaye seen mbokk sax dañuy far di gën a tedd kuñ joxoñ nga tedd kuñ la xoolee nga <laughs> kenn mënu ci dara kuñ tafli nga tedd <laughs> <laughs> xam nga ne waa alxuraan rek ñooy tabax ci réew mi jumaay ñaar fukki milliards ak eh, eh, ñetti téeméeri millions waaw nga xamante ne dégg naa sax am na tubaab boo xam ne ba mu ko yëgee dana yéen réew yi amatu leen maanaam waa dem ci bitim réew di yalwaan yi wala ngeen di lebbi ma ne ko dëgg-dëgg li ñu amit bu ñu booloo woon war nañoo mën a def lu raw waaw ndax ñoom ñooñu santaane bañ tabax jumaa ji luñ fi mas a santaane ci réew mi te ab xaalis di ko def def nañ ko luñ fi santaane te doole di ko def nit ñi defal nañ ko waaw dëgg la de yéen ñi waaw ndeysaan ci ñaari semaine dëgg la de te bu ngeen ko bëggaatoonoon subaat bu ngeen tàmbulee dajaloo mu dajaloo waat maa daal loolu jaaxal na ma réew mi am na xaalis oustaz am na ñu nangoo joxe xaalis te itam réew mi ñu ngi ci réew mu ñàkk soxla xaalis damaa xamul niñ koy laajee parce que oustaz boo xoolee wàllu impôt tey <laughs> impôt dañ koy dañuy topp nit naan ko fayoo impôt dégg naa kër gu ne sax am na lu mu war fay ci at mi eh, nit ki muñ ko daggee impôt ci salaire muy bëgg a dee te mën naa am liñ dagg ci impôt ci salaire am mën naa jël salaire ba lépp def ko ci enveloppe dem jox ko nit te yàlla tax léegi yàlla moom buñ ko buñ ko buñ ko jëmbatoon ba yàlla te nit ñee nelaw est-ce que du kon li ñu laaj lépp du far sotti ñun dañuy jàng te duñu jàng suñu diine <laughs> sëñ Mbàkke mm. gis nga li ngay wax nii mu mm-hmm. ci ma a fekk benn xew-xew ci njari Touba Ndiaye mm-hmm. boobu alaaj Njaga Njaay ma nga fa rajo ndeysaan amiin yaa rabbal aalamiin góor gu baax génn góor guñ fa doon fayu si impôt gendarme mm-hmm. mooy jël si ko war ko yóbbu kooki na ko yëgal ci oto bi mu jëli mbubbam daal di yéeg ndeysaan bi mu yéegi ba oto bi bëgg a départ mm. mu làmb geño gi génn ci dix mille daal di woo ne moor mu ne waaw mu jox ko ko ne ko boo màggalee nga joxal ma ko sëñ bi. ci <laughs> moor. <laughs> dégg nga gendarme bi ne ko waaye loo ko jox ni mu ne ko ñaari junni. Mhm. mu ne ko loolu amel mu ne ko junni. <laughs> lu tax joxe ñaari junni fee bi ne ko yow bu eh. tax nga yor ñaari junni. joxoonu ko xanaa bëgg ko jox sub sëriñ. Mm. mu ne ko damaa warlu woon ne su ma màggal see jox ko ñaari junni. Mm-hmm. waaw ah, loolu moom maa ko warlu. maa ko warlu. Mhm. junni bii nag yéen a ma ko teg. ci du benn. waaw. Mhm. mu ne su ma leen joxul junni bi fi ngeen fi ngeen ma yóbbu ne gis ngeen ko. Mhm. su ma ko joxul ñaari junni ba fa may demee dégg ngeen ko. sànq na ko wàccal. mu wàcc rek xëm. ndeysaan ndeysaan. waaw dafa wàcc jàpp ne moom sax tudd nga ñu fa waxtaanee addiyaam bi moo ko tax a mujj. jeex na kenn mënu ci dara. donc gis nga yooyu lañ lañ lañ waroon a def ci nit ñi. yar leen ci delloosiwaat ko. ñu nitewaat sëñ Mbàkke amaat liñ amoon doon liñ doonoon dëgg la oustaz dëgg la lu rek wallaay wallaay dëgg dëgg loolu nga wax te loolu itam moo mat a jàngat looloo mat a feeñal rek moo tax euh, bi ñu ubbee jumaa ji ba noppi ma dégg sax euh, ñoo xamante ne dañ ciy wax euh, léeg-léeg sax yenn wax yi nekk njuumte mhm. ci feeñal xëy na loo xamante ne lu jaaduwul la wala ay sikk la wala nangam mhm. may faral di wax ne léeg ak mbaax day ñëw yaatu yaatuwaay boo xam ne lu ca di ñuul ñu war koo mën a tëb te waxtaane lu baax la mhm. ndax loola nam toll la tax jumaa ji daal képp kuy wax ak euh, taxawaay yooyu ak euh, liggéeyu mag ñi bari na luñ mën a feeñal fi mu ne seen résultat mi ngi feeñ te dangay tegtale ne itam mbir yi yàquwul ba léegi te day gën a baax gis nga suñu bàkke hmm. mosoo tiim ceebu jën hmm. lu jum yëpp déedéet hmm. de xaw naa ko waat waaw waaw mën naa am kay moom kay moo amit am na ci lu jum yoo soxla wut <laughs> ak yoo xam ne kenn xamul lu muy wut ci ndab bi jeex na <laughs> musuma gis mukk nit ko sëpp ci ndab lu mhm. jum bu ne mu laal ko mhm. musuma ko gis yam mhm. ci soxla lay jël yam ci soxla mu bale jeex na lu àdduna si yëpp nag loolu lay demee bu fekkee da ñëw ci ndab li nag tàmbalee goo bëgg a jàpp ne léegi lee moom baaxut lii moom baaxut lee moom sikkali naa ma ki la ma yow tee ngaa yem ci li nga bëgg ci ndab la rek su jóg jógee nga jóg du dëgg mm-hmm. salbiyaat am ci penc mag ijaabiyaat mm-hmm. ijaabiyaat yi mooy man salbiyaat yi fuuf mm-hmm. sëñ Mbàkke bu ñu toppee ci nit di ko denc lan ñu yonent bi waxoon xam nga lu mu daan sallallahu alayhi mu ne lan uskuru mahasina mawtaakum kii ngeen di yóbbu lu mu rafet le wax leen ko ndeysaan ah waaw sëñ Mbàkke mm. kii yóbbu amul lu lu lu mu lu ah, ah, bari <laughs> waaw alayhi salaatu salaam lu mu rafet la wax leen ko te noppi ci ya ca des ah te yàlla kat ki ñuy yóbbu nii di wax ju rafetam yàlla xam na yu ñaawam mu bàyyi yu ñaawee comme nit ñi tudduñu ko ne ko yow yu rafet rek nga am yàlla ko ci jublu bi dëgg dëgg la man na ko ne xee bu leen nu rey li ngeen di dara lu ci dëgg bu doon nit en tant que nit sañ Mbàkke mën nga fi waxal nit dara am ku jóg weddi ko ndax kañ añaane kooku dëgg la ci lu wér mais yàlla xam na loolu mhm. yàlla xam na loolu mhm. mu ne mu ay mbokkam naan kii defoon lu baax nangam ki nangam yàlla na ñukk lu baaxul na fële mhm. léeg-léeg sax sañ Mbàkke du dugg noo ko fa ñukk dëgg la daf ko recycler yubaddilu llaahu <laughs> sayyi'aatihim xasanaat jeex na waaw suñu boroom jël ñaawteef yam defoon soppi lépp muy ay baax baax bàyyi mbir yeeg suñu boroom allahu akbar allahu akbar moo nu gën fuuf du suñu borom oustaz nañ ko bàyyee lépp lekk ñooy waaye lu ñuul lii ñuul ñuul bee hmm. nangam fii lu la nga sulli ko fa hmm. te am na suñ bàkk loo xam ne hmm. soo ca bëggee wane dangay ngay feeñ nit ñi léeg-léeg nga ne cell bañ a dafa gën ngay bëri ci làmb ji dëgg la ndax boo bëree bëree rek léegi tey am mbër mu la ñuy ragaloon ñeme la wallaay moom koy bàkku ba xiir rek dem toog waaw di bàkku di toog rek ñu naan kii ku jàpp tey nga dee <laughs> doy wax nga dëggu saas ci jeexital yooyu soriwul dara ñu noppi ci ubbitel jumaa ji hmm. keroog dimanche ci ngoon ñu toog rek gis ne ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall nekkoon maire de hmm. moom itam daal di génne ca kaso ba hmm. ci ay wax yu bari ginnaaw bi nga xamante ne président def na loolu ñuy wax ak bale maanaam grâce présidentielle la am mm-hmm. daal di génn loolu itam bokk ci yi nga xam ne réew mi moom yàggoon nañoo dégg damaa xamul nag réew mi lu ñu bëgg ndax léeg-léeg dañuy taayu bam bam teeng ñu yolomal ñu ne lu tax mu yolomal ah. ndax ñu baree bari ci réew mi ñoo doon wax naan xalifa moom daa war a génn xalifa daa war a génn xalifa daa war a génn président li ko yoon may def na ko mooy def na baale ginnaaw bi nga xamante ne wax nañ ne eh, ay ñenn ci xali avocat xalifa ñoo ko sàkku. waaye ala kulli alin daal génnu xalifa moom am na man jàngan nga ciy def. man daal sëñ Mbàkke. Hmm. ba ma déggee ñu ne génn na. Hmm. bokk naa ci ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin. ndeysaan. bokk naa ci sujjóot ñaari sujjóot. Hmm. lu tax oustaz. sëñ Mbàkke. kasul neexut. wallaahi fanaan al sax neexut. Mhm. ndax al asafaru. qit'atun min al azab min al azab. Mhm. waxuma laa nga nekk foo xam ne dañ laa tëj kaso. dëgg ñàkk liberté ñàkk lu baree bare. loolu neexut. ceet yàlla nañ ci dégg doy. li muy naqari naqari ci père de la gën a naqari. Mhm. li muy naqari naqari ci sa bëgg sa yaay nga xam ne ngoon gu jot nga bëgg ko la naqari. ndeysaan. donc suñ ne génn nañ la mhm. baal nañ la mhm. diwa ca dox waaye mhm. waaye dox dox yooyu comme génn rek la am déet waaye gis nga luwaayu tubaab luwaayu tubaab dafa doy waar dëgg la de cee luwaayu tubaab waaw gaañu dañoo dem ni ngoro ji euh, seen goro toog ci ker gi gaynde ga wut si ko ndaw si ñuy ngoro mi ngi indi añ yaayam a ngi topp ci ginnaawam gaynde gi wut si baayam mhm. ñaari far yaa ngi ci tool bi mhm. wenn far wa samp xelam wuti kër ga mhm. waaw garab gi mu njëkk a jot mu ne ñolo ca garab ga weneen far wi risqué risqué summi tubayam yeew ko ci baatu gaynde gi waaw di xiiti rek di xiit xiit rek ba gaynde gi see dugg yi mbàkke farwa ca kaw garab ga ne ko duma ko nangu ndax lan mu ne mu ne ko parce que sa caay nga ko reyee te moom daa daw <laughs> te moom daa daw yëg ca ca garab ga ñoom ñaar ku ci tane xanaa kay comme rey na gaynde ak caayam kay. wax dëgg yàlla ala kulaali def na ak njàmbaar moom. moom moo xam bant la ko reyee moo xam caaya wala kiloot moom daal rey na gaynde gi. rey na <laughs> daal la yéeg ci kaw garab ga. sa caaya nga ko loo bëgg a jublu ci léeb boobu oustaz. mooy xalifa génn na. Mhm. avocat ma ko laa ak laaju ko. Mm. waaw sëriñ bee ko wax ak waxu ko. waaw waaw. waaye waaye nañ ko wax nag alhamdulilah rabbil alamin dëgg la mu dem këram reer tëdd mais nag oustaz ak ay effet ci wàllu politique yoo xam ne est-ce que du moo tax polémique boobu di am ah, maanaam ah. ñi ñiy jàpp ne bu xalifa génnee façon génnin wii day tegtale ne dañ koo condamné loolu mën na koo xañ ay taxawaayam ci politique mën na koo xañ ci nangam jàppal tey nag ne hmm. génn géeg ñàkk génn dugg kas bag yëpp hmm. politiciens yi moom koo ci seen hmm. ay calcul lay def loolu jàpp ko bala ngaa dem fenn kon mën nañoo jàpp ne kii baale itam mën naa am baale bi ci calcul la ko teg moom kay dama ne la xool ba mu doon moment bu baax ak contexte bu baax mu baale moom kay dama ne la <laughs> jàppal ne ñoom ñëpp ci ay ci ay calcul xam nga loolu ci calcul la ñuy dox ndax calcul mooy dugg naa ci oto ba maag Ablaye maître Wade wàcc nañ ci ëllëg sa lii def nañ ko <laughs> loolu am na loo xam ne lii ci ay jeexantal. dëgg la munu caa ñàkk. Mm-hmm. waaw caa ñàkk. Mm-hmm. léegi nag comme loi tubaab la dañ naan la bu nangam amee égal nangam la. Mm-hmm. ñu ñoom léeg-léeg ci yooyu la ñuy dox. waaye daal génn gi moom wax dëgg yàlla moo ne tëdd ci kaso ba. dëgg la dëgg la waaw. macha allah mu jeex tàkk macha allah kon génn na génn goo xamante ne itam andi na ci coow man altine ci guddi rek bi ñu ciy def njàngat fii jot nañ cee waxtaan waxtaan wu xóot woo xam ne indi woon na tuuti ay kii sax. ci euh, euh, façon génnin wi nga xam ne moom la génn mm-hmm. nga xamante ne grâce moom daa bokkut ak amnistie ndax kon mm-hmm. nation bi bu xasee ba am day mel ne mën na koo topp ci avenir politique am mm-hmm. loolu nag xam naa yeneen jéego la yoo xam ne xalifa moom jamono ji oustaz li nekk ay yitteem daa mel ne mooy wër nit ñi jàpp ne ñi ngi ko doon ñaanal ak ñi mu jàpp ne ñi ngi ko doon métti lu duggam googu di leen di leen nemmeeku ji nooy jàngate loolu tey dégg naa démb mu def message boo xam ne bi dugg na ma lool mu ne lan daf ne li ñuy tuddee gëm gëm mooy lu am solo mooy nit bum jaay gëmam bum fooy gëmam bum yàq gëmam loolu lu am solo la la ca tege mooy bu leen jàppi xalifa seen baay du seen baay dafa am lu ma gëm ñu bokk ko gëm buñ ko bokkee gëm rek gëm-gëm googu dana am lu mu indi waaw nan joxante loxo te gëm benn affaire rek. Mhm. su nga loolu suñu bàkkee. Mhm. aqiida lu am solo la ci nit. Mhm. gëm-gëm. dëgg la lu am solo la ci nit. lu am solo la ci nit. la message sam boobu am na solo lool. moo tax léegi mm, comme génn na foog mu dem ci gaañ yi. joxe message boobu. jox ko xale yi jox ko ñi nga xam ne ñoom lay àndal. ndax gëm-gëm moo yóbbu nit fu mën a dem nag. ku ko amul mën ngaa tëdd nelaw doo dem fenn. sukkuraan tubarkàlla am na solo oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu loolu lépp nag li wane ne jàmm rek la mën a indi ci réew mi yàlla na doon jàmmi réew mi ndax damay wax ne tolloon nañ fi jamono ay bis bu jot nga dégg ñuy manifester ne nañ bàyyi xalifa an mu jot nga dégg ñuy manifester ne Ablaye Wade digganteem ak nangam nangam yu bëree bëri am xëy na yii mën naa tax loolu dal tuuti incha allah yàlla na gën a yokku lépp loo xamante ne ñu ngi koy def ñu sóoraale ci njariñu réew mi amiin amiin léeg-léeg nag man bu ñëwee diw daa luubal alal li réew ñu xëy suba ne jéggal nañ ko hmm. wala ñu xëy suba ne baal nañ ko te ca biir foofa ca a ba ñi baalee am na fa ñu fa nekk ñoo xam ne xëy na ñoom ginaar ak ñaari junni ñetti junni wala réer wala ay njuumtee leen fo indi mhm. waaye nag dañ leen di fàtte ndax ñàkk fiiw gi wala àdduna bindoo noonu waaw ñi itam finance suñu bàkk yi hmm. ñu def nii buñ la buñ la gracier mhm. du tax nag la waroon ci wàllu fay nga fay maanaam wàccu la déedéet dañ naa laa léegi kat amel nga ñu nangami million amel nga ñu nangami milliard ak genn wàll wala nangam loolu moom mi ngi fi tëdd ba léegi waaw génn gi nag naa nag bu ñu la gracier noonu lay deme waaw waaye tubaab tam noonu lay def bu ñu la amnistie nag mooy li lépp lañ boole bàyyi la ko hmm. waaw dëgg la sa ginnaaw bëndëg macha allah am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf ci génn googu ak njàngat yi nga xam ne def nañ ko ci yëpp xam naa réew mi de moom daa xaw a doy waar oustaz ndax léeg-léeg dégg ñu ne ña ngay sàcc xale eh, loolu nekk aw phénomène boo xamante ne day yaatu lool ba ñëpp dar gimiñ waaye nag fan yi moom li ñu dégg mooy rey nañ ay xale ca dëkk sàngam rey nañ ñaari xale rey nañ ñetti xale lan moo waral loolu oustaz suñ mbàkke hmm. ma waxati la ko waaw oustaz ku ñëw ci réewum jàmbur hmm. dañ laa war a laaj yaay kan hmm. benn. Mhm. laaj la loo fi wut. Mhm. laaj la kañ ngay ñibbi. dëgg la. su fekkee ne li xóor gu am. Mhm. ñu ne benn Sénégal ak ñetti étranger. ñun daaw ñu rendi ganaar. déedéet walaay yombuñu woon. ku dem Salif Sow mi mënut a rendi ganaar. yombuñu woon de da ku ne naan damaa néeg a rendi. waaw léegi nag ku ku koo xam ne mënoo rendi ganaar. dem ba mën a tiim nit. la waxuma la nit nga mën a tiim bébé. Hmm. koo xam ne defut waxut bu lay saaga sax saaga du leer. Hmm. nga ne ko deq ren di. la ilaha ko deq ren xale nga xam ne moom. xale dañ daan wax xale moom moominum yàlla la. <laughs> nga ne ko deq ren di dara. benn da ngaa bëgg ci dara jë pour yër ko nit. waaw sacrifice ak njabar rek. da ngaa bëgg ci dara ji bu ko nit mm-hmm. ñoo la dama indi xale boo xam ne bii xamagul àdduna mm-hmm. nga dem bu bëgg ko indi penc mii ma waxaat ko dañu parewul pour mm-hmm. jëli fi ak rey pareeguñ ko ku rey moom mm. ñu rey la dong moo fi jël ak rey loolu la gars yi bañ a dégg de. waaw mais moo tax moo tax du fi ñëw loolu moom boo ko tuddee rek ñu ne la. 2004 euh, ba léegi ngi koy coow ba léegi mm-hmm. na kay. ba léegi ñu ngi koy coow. Mm-hmm. sunu borom ci boppam moo wax ne loolu dong moo fi mu la jëlee rey. Mm-hmm. ngi kay benn dañ naan yàlla gëmuñu la ci loolu. waaw droit de l'homme lañ gëm. te dem bàyyi nag wàcce kaamil bi njàngum kaamil bi. <laughs> ndeysaan loolu de. waaw moom de dañoo bëgg woon ginnaaw li mu tëral ba noppi te fu ñu jaaxlee naan moom la. rek waaw te moom rëddal nañu yoon woowu bu ñu jaaree lépp réglé wu. Mbàkke waaw oustaz. biig dafay yebal ngelaw loo xam ni. Mhm. ko fi ñaari yoon. Mhm. léegi tey jëpp na cocc. maanaam mhm. ngelaw li biig. ngelawul biig li lan la jotee suñ comportement yi. ah. <laughs> dafa am luy tax yàlla di yeble ngelaw ak yooyu. Ah, waaw alam taraw anum yuftanuna fi kulli aamin. marratan aw marratayn ah. <laughs> yàlla ne al mu jot ma kobos leen benn yoon. waaw léeg-léeg ma kobos leen deux fois. deux fois. Hmm. nga xam gëstu leen nag. nga xam ne ngelaw yeeg yenn kiris yeeg yenn jafe-jafe ay kobos la. y a quelque ndax bëgg ñu tourné ne ko. Hmm. <laughs> suñu école yi ubbi. waaw te mënuñoo jàng. waaw. am na ci école bu ñu la ko ne sa yaram day daw. dëgg la école yenn yaa biir ndox mi yenn ñax maa nga fa yenn yenn yi. ah man de do ci ndox bi dañoo ŋecc ba nga xam ne nag noppaloo ci des. waaw suñu borom sóobaat ci lu toll loolu maa mu ëpp ko. dëgg la de toog di leen xaar. dëgg la de. buñ nga caatee mën na koo defaat. sañ na ko de. waaw te mm-hmm. ndox mbàkke ndox xéewal la. Mm-hmm. bu ñëwee indi fitna yaa quelque chose. Mm-hmm. loolu rek la de. ñun nag suñuy réew daa mel ne ndox moom xéewal la waaye ñun fitna lay doon ci ñun bu tawee. Ah, ndax Sénégal néew na mu nga dégg mu taw te yenn kii amul damaa xamul ñun ñoo waajalut suñu bopp. loolu la wala lan moo xew. yi ñuy yi ñuy def nii ci travaux ci dëkk bi ni fi nekk nii. Mm. xanaa lu daa war nekk xéewal. Mm-hmm. mu ñëw nekk fitna ci suñu kaw waaw dëkk bi oustaz tacc gim ne tacc maa ngi koy wax léegi suñu mbokk mi Jóob bi mu fi ñëwee léegi waaw euh, Maxtaar Jóob Maxtaar kaaraange yoon waaw ne ko Maxtaar embouteillage bi moom jaaxalu la réew mi daa mel ne jug dem fenn kenn mënatu ko rawat na ci capital bi te loolu xéewal war na doon waaw léegi nag mu ñëw nekk nattu suñu kaw doy na waar de mënu xëy léegi dem jëndi saakob ciment. Mhm. dellu siwaat moom kay xam naa dakaar ay Jakarta danañ fi mujj ñëw te nag bu ñëwee nag fit na gën a tey yokk ndax da nga fi dégg accident bu rut boobu jinne waaye oto yi ñoom mënatuñoo dem mënatuñoo dem oto moom mënatu dem fenn mhm. loolu loolu loolu sëñ Mbàkke mhm. fit na boo xëyee li ngay lakk ci gasoil ndax ngóor góor góor góor góor ci ci ci embouteillage bi dëgg la de te la ngay doxee du sotti wallaay wax nga dëgg wallaay wallaay loolu rek la de. Mhm. da ngay dox dox du sotti. Mhm. yàlla nu yàlla dimbali. amiin yaa rabbal alamin amiin foofu sax laay eh, eh, rataloo rek oustaz ñëw ci ubbite école yooyu nga wax léegi. Mhm. Eh, ni nga ko waxee ñu ngi wax léegi naan ubbi tey jàng tey. lool bu koy dégg ay ree daf may jàpp. waaw ndax damaa xam fu mu jóge woon. waaw ba delloo ko fa. ndax itam xam naa dañ koy def mu nekk ab slogan boo xam ne ak njàmbaar la te loolu mooy li normal. école tijji na moom tàmbulee jàng dong nga ci war. waaw waaye daa ñun ñetti weer yi xale yi di vacances ñu war saytu école yi ba mu ubbi tegu ci yoon ñoom it daa mel ne dañoo demandoo vacances ak xale yi te xanaa dañoo waroon buñ ne vacances jot na ba école tëj na léegi nag ñu profité ci école bu ñu war a tabax ñu tabax ko école bu war a defar ñu defar ko école bu ne ci commune ñu war a bay ñax ma ñu bay ko nettoyé ko waajal ko ba nga xamante ne waajtaay bi day ubbi ubbi day jiitu ubbite gi waaye bàyyi ba ubbi école bi door a tàmbalee waajal ah, ñun doo xam lan moo ñu dal doo xam réew lañ yor doo xam ay ay affaire xuusmaa ñàpp la wala lan sànq laa koy wax jenn xam nga comme àndaloon ci oto bi def na alaaj alaaj ñang la mm-hmm. ma ne ko ñun ngay romb fenn gars yi di ko defar. Mhm. nga romb fa juróom-ñetti weer. juróom-ñetti weer ci ndiggante soo xam ne mu mutul mu mutulub mutulub kilomètre. Mhm. juróom-ñetti weer juróom-ñetti weer. lu waral loolu laa xamul man. lu waral loolu laa xamul. mooy ñun daal yaa quelque chose. parce que tey jii fi mu ne boo doon dem tey Diourbel nga jël autoroute Ila Touba bi ba wàcc. yoon wi lay jëlee ca autoroute ba yóbbu la ca biir dëkk ba. ba nga ni ci sànce la nekk. te bi ñu inauguré autoroute beeg léegi léegi mu def at. xanaa boobu nag eh, ki jaar ci bi fay ba wàcc war nañ ko war wutal aw yoon wu mu jaar dem. même bu doon ab autoroute sax nag liggéey ab liggéey lu ma lu ma tudd treize kilomètres ñu bëgg koo liggéey at. tey boo jógee boo jógee pont euh, Malick Malick hmm. dugg yaraax du too génn mën nga fa am ñaari fan bala ñett mbalu ko jege. Mhm. lépp ma ngi ne tecc. Mhm. Mhm. yeneen réew yi man damay gis. Salif bi xam na ci dara. waaw gars yi ñaari équipe la ñu nekk. ñu dañuy xëy huit di liggéey ba treize heures. dëgg la de fi ñu wàcce benn équipe bi jël. nga leen ràmm ñuy liggéey. waaw du am fukki fan ak juróom. ñu ubbi ko ku ne dem. dëgg la oh, kon ndax du sànce yi ñi sumbandoo moo bari. wala day am dañ koy jox entreprise boo xam ne dafa amut effective bu doy. wala ki gañe marché bi ci boppam mu du jël personnel bu doy ci wàllu liggéey boobu di ko ñab-ñabal wala lan moo ah, xew lépp ah, a ngi ci nag <laughs> Mbacke li nga wax lépp a ngi ci parce que itam gañe marché bu toll ne ab tali wala benn sànce boo war a tabax euh, par exemple quarante personnes waroon caa liggéey nga jël cinq personnes liggéey ba day gën a yeex jeex na lépp a ngi ci nag lépp mm-hmm. a ngi ci mm-hmm. kopp koppal baa ngi ci mm-hmm. sakkanal baa ngi ci néew doole gaa ngi ci ñàkk man gaa ci lépp a ngi ci bi tey. léegi su fekkee école dafa tëj. Hmm. xale yi war noppalu ñetti weer. Hmm. juillet août septembre. Hmm. ñetti weer. ñetti weer yooyu ana école ba. waaw surtout. ah. taabal baa yi dem xanaa mbàkk mën nañu ko defaraat. fenêtre yi daj ko xanaa mën nañu ko defaraat. dëgg dëgg. perron ya nga xam dañoo toj xanaa mën nañu ko perrongaat. dëgg la. lu dëgg. toilette de xanaa mën nañu ko defaraat. déedéet mu la toog rek ba ñu ni. tey la xale yi di ñëw ci bis bi. Hmm. ci bis bi. Hmm. xale yi dugg di bale classe yi. Hmm. bu ñu fekkee ndox nag àdduna tukki. ñun loolu ñun ñun ci loolu la ñuy dox. yàlla nañu yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. ak metti metti na lool xam naa xaw ma kañ lañ koy yëg ba saafara ko waaye daa mel ne awaguñ yoon wa ndax lu bari dañuy bàyyi muy jàll rek. accident yi dégg nga ko fi nekk ni waaw accident yi moom dañ koo miis ba léegi. sax jàpp nañ ne moo day mujj ak day mel ne moo normal daal. waaw da ngay dégg accident mais du la déranger. jeex na accident am na maanaam trois morts garaaw. jeex na barki dem lañ fi ne dañuy changer permis naa nga mekk naa nga fi la xar jaar ah. salaamaaleykum. ñun kay oustaz am nañ problème waa waa conseil économique nag man ka damaa xamul lu may waxati yéen lu ngeen ci xam. ñun liñ. <laughs> wala yéen waxu leen ci dara. ah kay. Ah. def nañ ci waxtaan. ministre yi sax ku ci ne woo nañ la. Hmm. waaye fi ne da ngay defa def ba mu baax nga teg. Hmm. ca trois la ñuy teg. dégg naa bitim réew nee na ñoom duñu def duñu def séminaire. Hmm. duñu def ay études ak affaire yooyu. déedéet di ci ñàkk xaalis. day ñëw Sénégal rek. jënd benn journal wala benn nangam ak nangam gis la ca nekk ñu dem defal mu jaay yoon. ndax day fekk ñun def nañ ko ba noppi. ñun moom suñu théorie moo baax. daal pratique bi moo des théorie rek. mu di hmm. suñu pratique yàlla nu yàlla yërëm. est-ce que amiin xaw ma nag kañ la fi jóg waaye métti na de. mu ngi koy foo ko takk weesu na ko. ak a métti. Hmm, hmm. yàlla nu yàlla yërëm rek <laughs> kenn mësu koo gis. yàlla nu yàlla yërëm am na solo loolu jërëjëf damay jeexale xibaari daara ji rek ci safar bi ñu ngi ci weeru safar. waaw ku ko wax rek sa xel dem Touba ci 18 safar. dëgg la Euh, war a tolloog le 17 incha allah alxames le 17 moo war a tolloo ak màggalu Touba. loolu itam waajtaay la woo xamante ne xam naa ne ñu baree bari ñu ngi koy waajal ci réew mi di ko waajal bitim réew euh, dafa jege nag xam naa ak ubbiteel masaalikul jinaan gi looloo tax sax mu xaw a am ak àttandiku tuuti mm-hmm. ak itam xam nga ne at mee ñu génn ba weeru safar feeñee rek ci lañ tàmbali dëkk bi ko romb ma ngay safar mhm. waaye ren bi ñu def appel beek woote gi daa mel ne Serigne Mountakha joxe na ci tuuti ay e, leeral ak mhm. bëgg itam ñu néggandiku tuuti rek ba ca 18 safar ga bu ko mhm. defee ñu ànd ñun ñëpp dem waajali ko man njàngan ngay def ci loolu ah jëf xanaa rek euh, ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm te ñu weesu ko Euh, xam naa yaa ngi yaakaar sax Sud FM incha allah. bu subaa waaw dana 18 safar. Mm, waaw suba mooy mooy safaru Sud FM. safar béy bi incha allah waaw <laughs> njiital notre directeur Baye Omar. Mm-hmm. allah. Mm-hmm. ndax ab bés la bopp. Mm-hmm. bu am solo la. dëgg la. bés sëriñ bi nee na. ñëw leen sant la ma yàlla. nu ànd nu ñëpp sant ko. dëgg la. ndaxte kat lu baree bare dañ ko ci am. maa ngi dégg maam Moussa Kanaan duggoon ko nag dem gi mhm. walaf nasraanu mhm. te kon billaahi ñëpp dem niiraanu wax ju xóot waaw wax ju xóot parce que colonialiste yi mhm. ay nasaraan lañ ñu bëggoon a def maam génnee ñu ci diine ji yóbbu ñu ci yeneen diine jeex na parce que nasaraan bi du du du doonu tubaab mais mooy dem ci yeneen diine jeex na mu ne duggoon ko nekk dem gii. Hmm. wolof nasaraanu. Hmm. te kon billaahi. ñëpp dem niiraanu ñëpp dem niiraanu. laa sàkk. Hmm. te réew yi nga xam ne amuñu sunu mag ñi. ah loo ci gis. réew yi ñu digal loolu ak a ñoo tubaabe. ñoom amuñu ay màggal ak i gàmm. loolu loolu rek la. ñu ngi ci moo tax su jegesee. ñëpp tabarkaal di ko waajal. fas yéenee dem mm-hmm. fekke ji ko mm-hmm. santale ko yàlla mm-hmm. jàng alquran berndal gan ña fay ñëw jàng xasaay du dëgg déglu xalifa ba mu joxe ndénkaan ku ne dellu sa kër dëgg la am na solo lool. tubaarkàlla jërëjëf am na solo yàlla na ci àgg te wees ko. Mm, tubaarkàlla amiin danañ ko gën a yaatal. ci jotaay yi nekk suñ kanam dañ ko doon tudd ba ñu yëg ko rek. Mm-hmm. di woo itam auditeurs yi Sud FM yëpp ci safaru euh, Sud FM seen rajo. incha allah ndax itam noonu lañ ko defee woon daaw te noon lañ ko fas yéenee defee ren. Mm. bu ñu xëyee wàccee kaamil. Mm-hmm. yendu fee toog di waxtaanee yàlla ak yonent bi ak njàngale mag ñi ba ngoon jot. ndeysaan ndeysaan yàlla incha allah amiin yaa jërëjëf oustaz looloy xaaj bu njëkk bi di xaajo xibaaru daara ji mm-hmm. nes tuuti rek ci laaj yi mbokk yi bind ci email bi bi di albidaayatu arobas yahoo point fr ay déglu ma wax la la waral màggal nga xam ne Seex Bamba réyal demam nga taarix ba ama jëy sa seen mooy at ma moo di lelum sëriñ Basiiru mbég ma waaw waaw kon xaj Mbàkke xam na loolu tam daañu ci dikkaat ci kanam. incha allah ci Moussa imaam Moussa Gueye ma la ca nar. jërëjëf waaye ci mbindum maam musa Ka. macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy bind ci email bi di al bidaayatu arobas yahoo point fr. Mhm. ñoo ngi leen fay xaar seen laaj man ngeen ko fay sërxal te dañ koy jukki benn par benn ci jotaay bi di leen ko jéema tontu incha allah. Mhm. mbokk mi ñu njëkk a jox ab laajam mi ngi tudd Mansour laam nekk fële ci Argentine gannaaw ba mu nuyoo indi ay siyaare indi na fi ñaari laaj nee na laajam bu njëkk bi dafa bëggoon a xam ndax ki nga xam ne dafa fekk góor ak jigéen ñuy jote nee na daal mu génn wax ko ndax moom daf leen a tuumaal bañ ko naan dafa tuumaal as gor wala gannaaw fekkee ne leen ba gis ko rek loola nekkatu tuumaal as gor wala waaye la muy wax dëgg la bismillahi rahmaani rahim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul mbàkke bu nit gisee loolu hmm. génn wax ko hmm. lislaam da koy dóor moom moom mi ko wax moom mi ko wax même bu dee da koo gis même bu dee da koo gis seeta loolu rek juróom ñett fukki at la koy dóor hmm. ki def lee téeméer la koy door dóor waaye moom comme da koo wax ñi ko def kenn du leen dóor moom mi ko xam daañ ko dóor juróom ñett fukk suñu doon deux deux personnes ba tey ñoom ñaar ñëpp ku ci ne daan am juróom ñett fukk buñ doon trois personnes. trois personnes yëpp ku ci nekk da am juróom-ñetti fukk. allahu akbar. kon ci kon ci jamonoy partagé jii ñu nekk nga xam ne oustaz nit ñaa ngi partagé ay audio naan euh, xam nga ci lool lañ nekk léegi. bu njëkk bu njëkk wax yi moom da ngay dem. waxi ko saaliwu këram wala garab ga ngay naan ataaya waaye léegi jërul ngay génn sa néeg. di partagé rek. kuñ ci dóoru fi daan la dóoru fële. mooy ñiy partagé kat yi. maa la ko wax de. <laughs> buñ ci dóor fii hmm. daal la dóor fële billaahi waaw waaw oustaz waxal ak ñiy partagé ñi nga xam ne ñoom dañuy mel ne ñoom doo nga am connexion wala audio bi agsi ci ñoom ñoom rek ñoo ko am parce a am la ko tey waaw ah, xam nga ni kii daa tardé de <laughs> waaye oustaz kii moo tardé waaye <laughs> dafa am ñoom di bëggu partagé rek yàlla xam na ko yor sa whatsapp jël partagé partagé da koo jar. affaire boo xam ne. <laughs> xewi na 2016 lañ ko. ndeysaan da ciy door a jot. da ciy door a jàll. <laughs> door a jot cam. très def lay jàpp. <laughs> bilaay la ko nu soog a ndeysaan. jàpp ne moo rey gaynde gi. léeg nga bañ koo nga bañ koo wuyu mu lay bind naan la liir nga sama message. tontu woo maag. yàlla na yàlla buñ ko man nga maa tontoog te yow loo koy tontu. xamul ne lim def lu weesu la. macha allah yal na yàlla yërëm. am na solo de jërëjëf amiin yaa rabbal aalamiin maam solo boobu <laughs> jërëjëf. mu tax lislaam dafa bañ. waaw koy wax ci nit. Mhm. mbaa di ko jéem a weer. Mhm. mbaa di ko jéem a wax a jaane. Mhm. mbaa nga jéem a yëpp daf ko bëggul. lu am solo la. dëgg la wa sukkuraan. jërëjëf jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu teg na ci ñaareelu laajam boo xam ne dafa dem ca surat al cent aaya 259 la wax ay jaa ngi tàmbulee ci aw kalladi marra ala qaryatin wa iya xaawiyatun ala urusiha xaala anna yuhyi haatihi llahu baada mawtiha ba aaya ja jeex ngoog hmm. dafa amoon kuñ daan wax euh, Uzeyr hmm. Uzeyr moo doon dox ba fekk dëkk boo xam ne hmm. dafa mel ni calaaga calaaga dëkk bu nekk fële ca ca càlle dëkk ko ñëpp tuxu dëkk ba gent ba mu ba mu rombee nag hmm. mu daal ni waaw lii moom yàlla mën na koo dekkala waay <laughs> cim xelam nag la ko wax hmm. lii moom yàlla mën na koo dekkala waay hmm. sunu borom rey ko fa mu tëdd fa téeméeri at bi mu tëddee téeméeri at nag la lañ na ko pëkk pëkk mu jóg bi mu jógee sunu borom wan ko ni mu dekkale mbaamam mi mu yoroon ba noppi wax ne ko sa sa ñam mi nga yóbbuwoon nag foroxut ënnut waaw sa ñam mi nga yóbbuwoon foroxut ënnut loolu kon su nga ba ma ma nga doon jàngale ne dekki am na Useyru moom ne kere ba mu dekkee nit ñu ne ci penc ma kii doomi yàlla Useyru ibn Allah sunu borom subhaanallah nit ku dee dekki rek lu ci indi boobu relation wallaay kooku mooy ka nga xam ne marra ala xaritin wa qaa'idun ala rusha mm. Mm. wa shukran ci laaj bu am solo bi masha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo lu jotale loolu ndekete kon siki sàkk ci ndax yàlla day dekkal wala du dekkal ëpp naa def ëpp naa def mm. ëpp naa def day dekkal nit ñi du ko dee rek affaire bi jeex na déedéet dana dekk dana dekkal nit ñi ni muy dekkale maangoog gerteeg tàndarmaag sub mm-hmm. nga lu ci dee. Hmm. boo ko jiyee mu dekkiwaat. indil lam lool lam la indi lool. Hmm. noonu la koy defee ci nit ñi it. est-ce que wa shukran macha allah jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo lool lool moo nekkoon laajam boobu di man Mansour ñu ngi koy nuyu baax a baax. Hmm. mbokk mi ci topp mi ngi tudd Ahmadou Fall. Ahmad nee na lan mooy tep ki nga xamante ne daal day jënd euh, ci barab boo xamante ne dañ fay naane sàngara maanaam lu mel ne baar. ndax boo demee bitim réew. Euh, dëkk ba saaliwu ñoom jóge danga naan bu may naan kafe da ngay dem ca baar ba wala fenn fa nga koy naane nag mën naa am ñu fay jaay am ñoll ak yeneen ak yeneen ndax loolu dagan na bu boobaa bu pexe amee mhm. demal jëndi fa nga xam ne amu ko mhm. bu pexe amut nag duggal fa koy jaay te jënd fa yow la nga fa soxla mhm. lu rek la wa shukran si laaj boobu ndax ittaqulaa mastataatum hmm. moo nu ciy dimbali dëgg la wa shukran macha allah loolu nekkoon ab laajam ñi ngi koy jaajëfal bu baax mbokk mi ci topp mi ngi tudd Ahmed Fall euh, di wootee fële ca Ziguinchor hmm. moom nee na day laaj ñii nag la ko bindee nee na ndax ni murid yi di nuyoowe hmm. di sujjóot ndax loolu lislaam da koo tere wala déet euh, lislaam terewul ku jël sa gémmiñ dëpp ci sa loxob sëriñ lislaam terewul ku jël sa gémmiñ dëpp ci ku ñu am yaakaar ci moom ak baax ak barke mhm. lislaam terewu ko mhm. bañ ko laajee Sëriñ Shuaybu radiyallaahu taala anhu mhm. daf caa tontu lu am solo def ni lool du sujjóot ñu ne ko xam ah, mu sujjóot mooy dëpp sa jë sa bakkan sa ñaari cat loxo sa sa ñaari óom ak sa ñaari cat tànk mu ne loolu looy sujjóot mu ne loolu nag kenn du ko defal kenn ko dul yàlla amaa nuyoo dëpp sa gémmiñ ci loxol ki nga xam ne moom ngay nuyu mm-hmm. nee na loolu moom dara ni ko ci mm-hmm. mu ne nag bu fekkee ki nga koy defal mm-hmm. boo ko deful day mer mu ne ëpp naa def foofu la affaire bi nekk waaw suñ sooy bu waaw di mer naan waa ji ma nuyoo du ma sujjootal ak bi ma nuyoo <laughs> sumbiwul mbaxanaam ne yooyu <laughs> ku mat daal du seetlu yooyu waaw nit ku mat dëgg day day du seetlu nit ñee koy seetlu waaye yow doo ko seetlu waaye toog di xëcc dara ja rek ku la nuyu bu sujjootul nga mer <laughs> bu sumbiwul mbaxana bi lu mu wax mu ne daf maa cof moom amutuk taalibe eh, waaw fekk na doo waaw koy yow daal nekkal ci li nga nekk rek mm, jeex na jërëjëf Oustaz ñu ngi lay jaajëful baax ci tontu li mm-hmm. eh, beneen bi mu ci teg itam moom eh, mbokk mi di sëñ Ahmadou Fall nee na ndax yàlla ak diw maanaam nit di wax daal naan ginnaaw yàlla ak diw. wala yu façon waxin yooyu muy laaj ndax loolu dafa araam walla déet. Euh, bu suma duggee rek araamatut. Mm-hmm. Mm-hmm. bu wax duggee nag araam na. Mm-hmm. mooy yàlla ak diw. waaw boobu dafa xaraam. maanaam tey su fekkoon ne. Mm. damay dem Mbàkke. Mm. nga ne ma kañ ngay dem. Mm. ma ne bu neexee yàlla. te. neex la. te neex la ji maa ngi ci jublu. waaw soo ma mayee paas. Mm-hmm. mbaa nga yóbbaale ma sa oto. kon amul problème. Mm-hmm. waaw bu dee lu mel ni machi ak mm-hmm. iraada nag. su boobaa boo bu neexee yàlla ak yow. yonent bi ne déet bu lox loolu. dindil waaw gi. teg fa summa. dogal bi moom yàlla dong nga koy bàyyi. dogal bi yàlla dong nga koy bàyyi. waaw jàppandal geeg yeneen yi def yi fi. maye paas geeg yóbbaale gi nag. Mhm. mën nga ko jox nit. macha allah waaw. njàngale mu am solo am foofu. waaw waaw léeg-léeg ñu nit sukkandiku ci di génnee nit ñi ci diine ci yu baree bari. te ñàkk euh, leerlu rek la ne waa ji jubluwu ci loolu. déedéet waa ji ci loolu. Mhm. bu neexee yàlla ak. Mhm. waa ji li si jublu mooy. boo mayee paas mbaa nga yóbbaale ma. waaw dëgg la de la taale boo xam suñu Mansour. waaw kañ ngay ñibbi mu ne ah, ah, ma yeewi laam ma bàyyi ba suba mu ne ko loo ci man def daal war nga cee gaaw ndax hmm. dama ci laa bëgg a paas ci laa bëgg a paas waaw <laughs> <laughs> mu jeex tàkk mooy daal boy boon nga gaaw boon gaaw rek am na solo jërëjëf oustaz ñu ngi lay jaajëfal ci tontu lu am solo loolu beneen bi ci des nee na nan la lislaam gisee une minute de silence da koo tere ah amul solo tekkul dara ci lislaam hmm. mbaa mbaa ki une minute de silence mooy minute boo xam ne ñëpp a taxaw kenn du wax dara hmm. balaa càkk ñoo xul <laughs> une minute de moom. Mhm. waaw lislaam moom bëgg ko xamu ko. Mhm. na ko teg fële. waaw. est am na solo jërëjëf oustaz Ahmadou Fall euh, Ziguinchor laajam bi mu ci topp te mooy ñeenteelu laajam mhm. euh, euh, nee na ci yéen oustaz yi la jëm waaw noonu la ko bindee laaj bi nag ci yéen oustaz yi la jëm ah mu ne mooy cerveau vocal bi waaw nee na daal damaa jàpp ne riba moom moo ko wax nag kon nee na dafa jàpp ne riba la ndax nit day dugal crédit cinq mille mm-hmm. wala dix mille mm-hmm. nee na dugg serveur bi naan ko xaaral tuuti ñu jël la xaaral tuuti ñu jël la mm-hmm. xaaral tuuti ñu jël la nee na ba mu ne pëng nee daal muy laaj ndax loolu moom riba la wala déet waaw léegi ba mu ko jëm ci ñun ah wax dëgg na ko jëm ci techniciens yi rajo yi <laughs> ñoom Aliou Badara Socé waaw am déet waaye ñun kay bu ko jëmee ci ñun wax dëgg yàlla wax serveur du suñu serveur <laughs> Ahmed Fall. Hmm. serveur bi du suñuy ser du suñu yëf. ndeysaan yëfi rajo bi la. ndeysaan du dëgg. léegi rajo bi day jaay benn benn marchandise. Hmm, hmm. Mbàkke. rajo bi day jaay benn marchandise. mu ñuy wax dugg ci rajo bi. wax. adduna sipp dégg la loolu rajo bi jaay. léegi nag boo jëndee sa crédit dugal ko ci te dugguloo. wala nga dugal ko ci te dugg. loola lam la jaay. dala koy jaral bu la ko jarul bul woote. du riba de. Mm-hmm. bu la ko jarul bul woote dafa am mm-hmm. lu mu jaay rek. Mm-hmm. waaw loolu rek mooy serveur. macha allah te mm. gis nga ndagar walekat yi. waaw taasukat yi. fecckat yi waykat yi. Mm. du musuma dégg ko kaas. déedéet ñoom seen émission kenn du ko kaas. ñoom seen émission ñun suñu bës rek parce que ñun suñu bës dañu jàpp ne gratuit la war a doon. gars yi dañuy woote naaj wax maye di kaas nangam nangam. rek. Mm-hmm. auditeurs yi si liggéey yëpp nangu nañ mu ubbi séréo duñ kaas ak yu Nicolas yi moo taxit fi nekk nii kuy liggéey ca yooyee mën nga am xaalis mën nga am lu nekk mm-hmm. waaye noonu ci yu nekk ni moom mm-hmm. yàlla noonu yàlla yërëm rek te ngeen yërëm nu yéen it amiin waaye daal serveur bi moom du mbirum ustaas yi mbirum technicien yi laak mbirum rajo yi ñooy jaay seen marchandise jaar la ko foofee ku ca wootee tabarkàlla euh, la cay ruusee euh, jëm ca fa mu jëm. <laughs> jërëjëf ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu mbokk mu ci topp te mooy suñu ñeenteelu aji bind. ci ñi bind ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr. Mhm. mooy al Ousseynou Dieye. al Ousseynou Dieye ma nga fële ca Canada. Mhm. moom nee na daal li mu bëgg a xam mooy koo xam ne dafa am ay action maanaam ci ab banque wala euh, lu mel ne kër. wala lu mel ne ab ab société. mu jënd fa ay action ndax action yooyu daf koy génneel asaka ak nan la koy génnee. bu fekkee fa muy jënd action ñuy jëfandikoo baa la. Mm-hmm. loola dëgganut. Mm-hmm. bu fekkee ñuy jaay aw ñoll la. Mm-hmm. loolu dëgganut. bu fekkee duñ jaay yooyee nag action ab xaalis la doon ci moom. kon su asaka jotee da koy boole ak asaka ci génn leen ñoom ñëpp. wallahu taala alam wa shukran. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi ci topp nee na ginnaaw bi mu la nuyoo jaajëfal ci jotaay bi. mi ngi rafetlu euh, tontu yi mi ngi egsi ci laaj yi mu njëkkoon a bind. Mhm. mu daal di bindaat beneen. nee na moom daal dafa bàyyi ba ñu suba la tabaski. Mhm. yorul woon lu dul deux cent cinquante mille. bëgg cee jëndum xar mu far réer. Mhm. nee na mu wër ko wër a wër ba sonn gisu ko. far laataa ñuy tabaski mu far for deux cent mille. nee na muy laaj deux cent mille yi mu for da koy far jënde am xar wala day wëri borom. <laughs> ah ba ko waajur ñoom jiili mbay fore de. Hmm. ca Mbàkke Bawol. ndeysaan di xar far for fa cent mille. Hmm. ndeysaan jël saamile ba Louga. maam Cheikh Mbaye. waaw. <laughs> mu door ne ah! <laughs> hmm. man de li ma def def. xar jaa ku mi bamba jogook waa la sant nooru bamba jaar nooni yàlla jaaran jëf ci ànd beeg si defem seen rajo tabarakallahu tënkum xibaar yaa ngi noonu ci tubaab mi ngi noonu ci wolof Haji Mbàkke koon daal moo ci tege jërëjëf oustaz wàllu auditeurs yi moo ci tege ginnaaw bi ñu jaajëfalee équipe bu rédaction bi wàllu auditeurs yi ci 88 628 98 98 bu dee ñu ci biir réew mi ñu nekk ci bitim réew ñooy woote ci 33 841 22 33 noobal baa nga sa baxee ca ngeer ba ñu roowul ak siwil keroog payoor ba waman yuhaajir fi sabilillahi moo naa ko yóbbu foofa doole laay déglu ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bàmba réyal demam nga taarix ba ama ah, jëy sa seen mooy at moo di lelum sëriñ Basiiru mbég ma nee na la yàlla defaloon kalima di daari defal ko Ibrahima da yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit may na ko gaayi Mbàkke waaw mbokk mi daal bëgg a bokk ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah man la Ismaila Sarr maa ngi dëkk fii Wokam ci avion waaw kay Sarr naka waa Wokam ñu ngi sant yàlla bu baax. macha allah. maa ngi rafetlu émission bi. daal lu may laajte ci daara bi. waaw. man daal dafa am benn euh, saaru alxuraan boo xam daal. Mhm. dama gis daal euh, jullit yi euh, farlu wuñ ci lool. daal. Mhm. muy tabati yaddaa. waaw. du ma gis du ma fekk julli mukk ñu tari ko. waaw du ma fekk daal ay nit di ko waxtaane. waaw man daal saaru woowu daal. ma bëggoon daal oustaz daal mu am lu ma ci leeral parce que man daal li ma koy dégg ñit di ko tudd bëriwul dara dara dara. d'accord. asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi koy jaajëfal ci duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi al imaam Adama Diagne ma nga fële ca seew xaay di ànd ak ñun jotaay bi. ñu koy nuyu di nuyu waa seew xaay yëpp monsieur le maire ñu ngi koy nuyu. Mm-hmm. Euh, mbokk mi nee na oustaz tabat ya daa daal daa mel ne gars yi seen copain comme ni nga doon waxee ne gars yi dañoo am copain ci. <laughs> saa yi ñu koy tudd. walaay ndeysaan waaw fii de ñun xam nga xaj Moustapha gi moo daan wax ne ceddo gi daf noo bàyyi gut ceddo gi daf noo bàyyi gut ba tax mm-hmm. jàpp na ne tabati daa ko kenn du ko tari guddi mm-hmm. tabati daa kenn du ko def nangam nangam nangam mel ni alxuraan mm-hmm. euh, noonu la mel te gis nga tabati daa mbàkke li muy réglé moo surtout fii ñoo ko niroole ñoo ko niroole ñoom ñaar kenn ku ci nekk day nekk lu xew ak lu jëm ci kanam rek tabati daa wax mooy ummu jamil dana dugg sa sawara moo jëkkëram mm-hmm. alamtara mooy duma naa ñeeroon ñay ya mm-hmm. mu jax tag mm-hmm. léegi nag ñun ñu ci ci penc mi ñoo bëgg jàpp ne saar wi kenn du ko jàng guddi kenn du ko jàng nag ah kay afa tu'minuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd wallaay suñu borom ne lu tax ngeen bëgg a gëm ci alxuraan ji daara bëgg way di la ci des kon nag tabaja daal ñuy jàngee yeneen saar li ko war di jàng ci julli ak jum seen yëpp hmm. waaye su fekkee nu ceddo ga mooñu mooñ nag léegi tey ñu jël ay saar teg fële jël ay saar teg fii hmm. eh, ñii ñu def leen ay xar ci def ñu def leen ay noon hmm. wallahu taala alam wa shukran jërëjëf ci tontu lu am solo li ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax 88 628 98 98 mi ni jot na ba tey ñaar fukki simili ak juróom ñaar dana yey ci Bàmba doon si keroog la ñaan bur yàlla yoonu géej ngir nga liggéeyal Moustapha may géej ga ngir boobee wuur yaa ngi kiy xëccoog sëriñ si kàngam yi ak tubaab yi naa ko merci adduna ak laaxira far di ko gëroo ku nekk ne maa koy jël te naa sama goroo ba xaadimam jaxate naa ko irkan jengal te jublu buntuuri cey koon sax bamba naa ilaahi daaran wala ilaaha illallah man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maa yi ndokkum yàlla fa jàng naa ko man alal du tax ma jàng jàngal ma saaru oon ma koon boo jàng bilaahi taalaa yéex naa yow xalamoo laa tarka noo illa lazina salamu xaaloo li irkan mooy jawaabi xaani bambaa ko tontoon wanta keroog la Bàmba jumbanaa billaahi tay fasanaa alduna jublullaahi aqbalati dunyaa ilaya xablu wa biituha fa saala anni kablu wa baadoo anni ya at baradu walam amiliyaali kaw naa daaru sulaam wa baadoo li aqbalati wa inni aqbaltu barkalla asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah kàddu gi xaw naa suufee yaram. bisimilah. waaw da ngaa def casque wala. waaw kàddu gi de moo suufe lool ñoo ngi ciy jégg lu baax nag. bisimilah bisimilah. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. nga ko waa Touba. jàmm rek kay. tubaarikàlla. doon sàkku ñu yokkal ñu ñu ngi koy sàkkuwaat ba léegi nag ndax su ma waaye yow de li ngay wax dégguñu ko bu baax suufe na lool yaaram allo allo allo Ah, ñu ngi koy jéglu baax baax oustaz ca Mbàkke lay wootee ak Touba xam naa foofa mi ngi jàmbat ba léegi rajo ba ak ñàkk leer gu mu fa ñàkk leer incha allah xam naa Alioune Badara Socé mi ngi koy dégg tabarakallahu ak Baye Omar euh, le directeur mbokk mi ngi tudd Soda Mbaye mu ngi fële ci Gibraltar di ànd ak ñun jotaay ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Gibraltar yëpp 88 628 98 98 ñu dem islam ci yaaya sëriñ si naaxis lañu bambay kaamil mbari yëpp suq lañu bambay kaawal man saqib zalika falu jarribi wa man jarib baabi taqrubi jaayante naag yàlla te dootul xàcc rijaal yi seede nañ masta sàcc loolaa tax jërëjëf euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Mbacke. waaw bisimilah. maa ngi la. jërëjëf yal na yàlla nangu ziar. maa ñoo ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah noo ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf jërëjëf. waxtaan bi yëpp am na solo. jërëjëf. Eh, noonu ngeen ko waxee rek amuñ dara lañ ci teg. dëgg la dëgg la. waaw ah, di ñaanal suñu kilifa googu rek yàgg ci loolu te wér. amiin amiin yaa rabbal alamin. yeneen ci lislaam bi yëpp suñu borom matal ko. amiin yaa rabbal alamin. waaw ah, sa xarit la. waaw ah, kay Assane Samb. waaw Samb Samb jërëjëf Samb jërëjëf. waaw di di yow it dañ lay dégg bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di kontaane di la jotali siyaare waa Kër Babou Ngoné. ñoo ngi leen di nuyu naka nawet bi. waaw nawet bi fi mu ne nii moom ñu ngi sori moom. Eh, naka sëb yi. waaw sëb yi moom ñor na. ñor na ñu ngi ñu ngi ñu ngi def nan la tudd ci sax. waaw ñu ngi def loolu. <laughs> yooyu noonu yi fi sàmbeen yooyu. waaw ñu ñoom ñaar ak yooyu. <laughs> du ñàkk du ñàkk ne màggal gi moom buñ kiiwoon sax ma ndil la ci de. nga ni ma ñebe ju tooy ma ñaar. waaw ñebe ju tooy ji kay. ah loolu de baax na moom. <laughs> waaye ak ci jàmm baax nañ ko muurloo. amin amin amin bisimilah bisimilah macha allah fi mu moom tool yi rafet na bu baax a baax jërëjëf yàlla na àgg ak jàmm tañ muur loolu lépp amin amin amin yaa rabbi waaw dañ doon ziar ak rafet la jotaay jërëjëf Samb jërëjëf jërëjëf Assane Samb kër bu Ngone ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey rafet lu duggam bu am. mbokk mi Moustapha Sall Mbour Sud FM. Mm-hmm. ñaan ñun jotaay bi. moom it di ko ñaanal waajtaayam woowu mu nekk oustaz yàlla mottali ko. <laughs> ndax xam nga booba léegi ci ak célibataire rek la nekkoon. walaay ndeysaan ah, yàlla tubarkàlla amiin yaa rabbal aalamiin ñu dem. noonu ba yor leetar ba. ni leen gërëm bànqaas yow mooy tiitar ba. dinaa fulan bànqaas ya ndéjji mbuur ba. tani caala ba tasaare tool ba maam ak juróom. wallaay ndeysaan asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. bisimilah. bisimilah sëñ Babacar. génn na ñu ngi koy jaajëfal xaaraat keneen mi nu jot na ba teg fanweeri simili ak ñaar. mbokk mi nga tuddoon Ndeye Ramata Diop mu nga fële ca seew xaay di ànd ak ñun jotaay bi. tubarkàlla jërëjëf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax asalaamaaleykum. ak Cheikh Goulda ñu xaar ko bu ñëwee rek ñu dalal ko léegi incha allah. bi ah, eh, am na ñu may tàmbalee ñaan ci ñebe ji oustaz te ñëwagut <laughs> <laughs> eh, asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. jërëjëf sax ñu ngi koy jaar di bu baax a baax. macha allah. Euh, di jaajëf di rafetlu jotaay bi. jërëjëf jërëjëf. Euh, di ziare soxna Mbaye si Mbaye aram ak soxna Binta Faye Touba. ñoo ngi leen di fay baax a baax. Euh, ij alal rujooy ilaa xaw mi. ij alal rujooy ilaa xaw mi saadatana. Mm-hmm. tubarkàlla jërëjëf aram tubaatul ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ndeye Fatou Dramé nga ca Mboro di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf nee na mbay nee na nga ñëwal ko ci bayit woowu sëriñ bi waxoon ne ijaal rujuuci ila xawmi saadatana wal takfina yowma jam il xalqi waa waaw jërëjëf ci laaj mbaam solo boobu mooy bisañ bi di jóge ci géej gi di ñibbi si loolu la defoon sëriñ ja mooy ñu am saada daara yi fi dunya wal axir la la ñaanul suñu borom ba mu ñibbisi mm. ijaal yàlla na nga def rujoo yi sama ñibbi ci gii ma ñibbi ilaa xawmi ca sama nit ña fa ma bokk saadat naa mooy sunu texe ma ak ñoom waaw wal tag fi naa yàlla nga nu fegal yow ma jëm il xalqi bis bi ñu dajale mbindee fi góor ak jigéen ma ak ndaw nga fegal ñu niiraana sawara wa shukran ci laajam ba am solo bi wallaay ndeysaan jërëjëf Oustaz ci tontu lu am solo li kii moom sa uh, mbokk la di soxna xadisi la nee mooy ndénkaan bu ñu la waxee ndénkaane bi ah, ñu ko xam mi ngi ànd ak yow jotaay bi di la nuyu bu baax madame Thierno Seck waaw madame Thierno Seck waaw mi <laughs> ngi lay bëgg bu baax a baax jërëjëf moom baax na jëkkër ma baaxul <laughs> ndeysaan asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah bisimilah bisimilah waaw ah, Oustaz maa ngi leen di nuyu di bu baax a baax jërëjëf jërëjëf waaw man la Moustapha Badji Koundam Kaolack. jërëjëf jërëjëf Moustapha. waaw maa leen di ñaanal bu baax a baax di leen di jégalu nag. Mm. ñun auditeurs yi ñu leen di jégalu bu baax a baax ndax gis nañ coono di ngeen di daj nag. pour mm. ndeysaan eh, ci émission bi di tontu suñu laaj. jërëjëf jërëjëf naa muyu leen fay ñu bàyyi leen ak yàlla rek. amiin amiin amiin yal na leen yàlla dellu wér ak gudd. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. waaw dama doon laajte eh, tey boo rate woon eh, rakk bu julli ci rakk bu njëkk bi ci jumaa mm. waaw naka nga koy réparé ndax da koy fay walla da ngay ànd ak ñu euh, fi nga fi nga tombé noonu. d'accord. waaw ak yéene booy jàng ba aaye boo xam ne si biir saar la ndax dañuy tàmbali bisimilah man rahim wala. d'accord. waaw maa leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu auditeurs yëpp. jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo di la jaajëfal yow itam mm, saa tey rafet lu duggam boobu mbokk mi ngi tudd Mor Seck mu nga fële ca jogo di ànd ak ñun jotaay bi ñu koy nuyu mag waa jogo yëpp uh, ak waa tund wa mm-hmm. Mm-hmm. mbokk mi neen oustaz ki ñëw di julli si daal di rate li nga xamante ne mooy ràkka bu njëkk nan la koy fayee waa su fekkee daa ñëw si jumaa ji fekk ñu jox jeex ràkka bu njëkk ba noppi mm-hmm. mu fekk deuxième bi bu imaam salmalee day indi beneen rakk bu am faati ak saar jàng ko ca kaw te am na jimaa insha allah mhm. wa shukran jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal beneen bi ci des itam euh, oustaz mooy lan la laajate sax mhm. danaa ci ñëwaat léegi insha am na euh, waaw kay asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz Mbacke maa ngi nuyu waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax di la ziar di la félicité waat sa ñu ngi koy suivre macha allah yal na yàlla laf cat. amiin yaa rabbal aalamiin. di nuyu Oustaz. Mhm, jërëjëf di ko wax suma yaay moo tax sax ma woote léegi la coupé ak man. Mhm. nee na mi ngi lay jaale li ngeen bokk. Mhm. la jaale sa waajur boobu. nee bu ne da lay déglu du nopp lu mukk di la déglu tànk pare woo du noppalu. Adama Gaye la tudd. macha allah moom nee na keroog ñoom Pape Diop nekk aéroport ñu woon nañ jaale si la keroog. waaye bëggoon na caa waaye. daf ko dañoo dem te yëgantewul mhm. waaye nee na mi ngi lay jaale li ngeen bokk. jërëjëf jërëjëf ñoo koy fay. di wax ne benn laaj bi may laaj muy ñi di julli ji des fois ngay gis ñu bari dañuy groupe yi ñëw julli ji. Mhm. mais lu ci bari bu ñu ñëwee ci biir jàkk ji su imaam di xutba dañuy taxawal continuer julli ba pare ñaar rakk yi est que loolu dañ koy jagle comme niñ koy tuddee ci nit boo ñëwee fekk imaam kii di xutba da nga war a julli ñaari rakk doo ko toog. Mhm. ñu bëggoon laaj ndax loolu lu lu ñu la wala dafa am lu ñu ci war a wax. Mhm. ñu ngi rafet liggéey di la félicité waat bu baax. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. Moustapha Mbaye 300 fukk ak ñett ñu ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo. mbokk mu ngi tudd Pape Ba mu ngi fële ca Thiès di ànd ak jotaay bi. ñu ngi koy nuyu moog waa Thiès yëpp te di ko béggee bu baax a baax mbokk mi Oustaz nee na euh, moom sëñ Moustapha Mbaye euh, ki nga xamante ne daal dafa. Euh, <laughs> Moustapha Mbaye euh, ki nga xam ne dafa ñëw ci jàkk fekk imaam muy xutba muy julli ñaari rakka mm. nee na loolu la bëggoon nga ñëwal ko ci jërëjëf ku ñëw fekk imaam di xutba day ngay door a si mm-hmm. da ngay def ñaar rakka te woyofal ko mm-hmm. woyofal ko mooy nga jàng ca faatee kese mm-hmm. rakka bu njëkk ak deuxième rakka bu fekkee nag imaam moo la fi fekk nga jóg di def lu lu ngay def naafile tudd dañ la koy tere su boobaa wallahu taala alam wa shukran ci laajum moom sala Moustapha jërëjëf ñu ñu kër gi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. Oustaz Mbacke Sylla ñu ngi lay fay. di nuyu baax Oustaz Alioune mi ngi lay fay. di ko jaal suñu kilifa boobu fi jógewoon bu yàggul. Mm-hmm. jërëjëf. Eh, ngi lay nuyu baax a baax Oustaz. Mm-hmm. jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilah. bisimilah. man nag ci sëñ Mbacke Sylla moom laa doon laaj. maanaam cursusam fan la jaar parce que dama koy seetaan ci télé bi yàgg koo déglu. Mm-hmm. maanaam cursus. fan la sëñ Mbacke si la jaar la jaar. <laughs> loolu daal lu ñu bëggoon xam loolu daal. d'accord wax ñu fi tuuti <laughs> hmm. koy jaajëfal bu baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Alpha Diallo nekk ci Ali Imran vice di ànd ak ñun jotaay bi. Alpha ñu ngi koy nuyu moog waa bureau Ali Imran yëpp <laughs> tubarkàlla. Hmm. mbokk mi de Oustaz xam naa maa ngi nii ci biir daara ji di jàng rek loolu li muy laaj xam naa wala. <laughs> waaw waaw léeg-léeg nit ñi laaj ko. Eh, te itam war nañ ko di laaj. ndax tubarkalla <laughs> Eh, xam naa danañ ko ci danañ leen ci ñëw ñëw bu yaatu wax leen suñu Mbàkke la mooy kan fan la jàngee Jurbel la dëkk ban jaar la jaar luy métier am nangam nangam kañ la neef ba jot ci jataay bii di Access Media et cetera incha allah dinañ ko indil bu yaato yaatu. Eh, ne la eh, maa ngi ci daara ji rek. Mbàkke Sylla fii Soto incha allah <laughs> ngi jàng bu ma jàngee ba noppi ñu wax fan laa jaar waaye fi mu moom ñañ mi ñaanal rek i may jàng mokk <laughs> bisimilah salaamaaleykum. Ah, aleykum salaam. waa bisimilah. man la Moustapha man moo dellu sa Moustapha Badji. Moustapha Badji. Ah, sama ñaareelu laaj bi mooy dama doon eh, bu fàttali ko ne booy jàng aaya bu nekk ci biir saar ndax da ngay tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim. Ah, wala ok ok d' accord waaw loolu laa fàtte woon maa ngi ciy jégg lu baax a baax. jërëjëf danañ ci ñëw léegi incha allah. Mm-hmm. incha ñu ngi koy nuyu baax nee na oustaz kii julli ba ne ci biir julli gi di jàng aaya maanaam muy jàng euh, aaya boo xam ne ci biiru saar la rek tàmbali ci bopp saar bi ndax def bismillah rahmaan da jékki mbokk mi jibi si la tudd xam naa doo bind adresse lay wax ne booy tàmbali ci bopp saar da nga naan aoudu billahi mina shaytaani rajim ne bismillahi rahmaan rahim ne alam tara kayfa parce que ci bopp saar la bu fekkee li ngay jàng ci biir saar bi la da nga mën a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim fa waylul lil musalliin allaziina hum bu fekkee ci digg saar bi la bu dee da ngay julli nag nga xam ne fii ci biir julli nga nekk moom tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahiim dañ ko ci sib ca kaw ah, am nañu ko ca def ñenn ñu ne déedéet kenn sibu ko waaw fekk ci digg saar bi nga nekk nag moom a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ya nga koy wax mooy fekk julli woo mm-hmm. yaa ngi doon jàng alxuraan rek kon awatu bi lam taan ji mu xaw wax rek daal di tàmbali ci saar wa xam nga tàmbali ci digg ba bu dee ci bopp saar bi nag ba basamam bi rek xaw xale bi ñoom ñëpp ñooy bokk ànd wa sukran ci laajam bi jërëjëf oustaz as malik say almaañ jërëjëf nee na mi ngi sénégal ñu ngi koy nuyu moom waa diaspora bi yëpp mm-hmm. asalaamualeykum waaleykum salaam bismillah Fatou Mbacké waaw na yàlla nangu siyaar alhamdulilah mi ngi lay fay. mbaa yéen a ngi jàmm. jàmm rek kay tubaarkàlla. naa ngi defal coono yi. bu baax a baax. alhamdulilah macha allah alhamdulilah. man nag dama laaj boobu boobu mu dugal sànq ma dama cee am laaj ci far laaj. waaw ban laaj la. parce que dama dugg ci maa ngi fi leen jàkka joo xamante hmm. maanaam imaam bi moo wax ne. su fekkente ne dangaa ñëw fekk imaam mën ngaa toog jarul ngay ngay ngay def ñaari rakka mhm. ba mu mel ni daal boo ko def sax daa mel ni da ngay déranger mhm. ndax man def naa ko pare rek nit am ku ma woo ne ma yow boo ñëwaatee fekk imaam di xutba day julli mhm. mën ngaa toog waaw mu mel ni daal dafa xelam de mu xawoon maa jaaxal quoi d'accord mu xawoon na maa yëm daal baax na beneen damay laaj beneen aaya bu nekk ci suratul Kahf fi wa iz istazaltuhum Eh, wa iz i'tazaltumuuhum iza li mu wax. wa maa ya'buduuna. wa iz i'tazaltumuuhum wa maa ya'buduuna illa hmm. allaah fa'wuu ila al-ka'fi yansur lakum rabbukum min hmm. rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqaa. Hmm. wa tara ash-shamsa iza talaat wa tazaawaru an ka'fihim zaata al-yamiin boobu laa bëggoon ustaas ñëwal la tuuti. jërëjëf. jërëjëf. Sukran ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tudd Sidi Seck mi ngi ci OFNAC di ànd ak ñun jotaay bi. Sidi ñu ngi koy nuyu moog waa OFNAC yëpp. tey rafet lu kóllëreem ak ànd ak jotaay bi. Mhm. mbokk mi ci wàllu ñaari rakk yooyu di taxiyatul masjid lay wax rawatina bu dee bisu àjjuma nga fekk imaam ci minbar bi daa mel ne nit ñu baree bari nee boo ko defee rek dañ lay laaj wala sax ñu lay balaa balaame naan nangam ndax dafa am ci école yi eh, ñoo xamante ne dañ koy bañ. waaw xam nga bu ko mas Abu Malik tere mhm. dañuy bañ ñu jaawale ko ak naafila mm-hmm. naafila mooy ilimaan moo la fi fekk mm-hmm. taxitul masjid mooy yaa fi fekk ilimaan mm-hmm. comme ilimaan moo la fekk julli nga ba toog bul def dara ndax aleyhi salaatu daa nekk ca jàkka ji di di am ku ñëw toog mu ne ko hee def mooy yaa fekk ilimaan comme ilimaan moo la fekk woon nga ba toog bul def dara ndax alayhi salaam kat daa nekk ca jàkka ji di di xutba am ku ñëw toog mu ne ko hee def nga ñaar rakk mu ne ko déedéet mu ne ko jógal def ko mu def ko ba noppi mu teg ce ne ku duggati ci yéen ci jàkka ji balaa toog na ko def loolu tax nit ñi di ko def mhm. waaw wallahu taala alam wa shukran jërëjëf aaya bi mu ci teg ma ngi ci suuratu fii du sori aaya 17 wa tara shamsa ida talaxat tadawuru tasaawaru an kahfihim zaata alyamini mhm. wa ida xaraba taqriduhum zaata alchimali wa hum fi fajwatin minhu dalika mhm. min ayaati illahi man yahdi llahu fa huwa almuhtad wa man mhm. Eh, eh, muy laaj mooy bu asaabul kahfi la sunu borom di wax ne boo leen gisee da gis ne jant bi su mm-hmm. su su suy so mm-hmm. lim leen di jox ciw naaj mm-hmm. ak suy fenk lim leen di jox ciw naaj tolloo na tolloo goo xam ne duñ nëb waaw moo taxoon ñu nelaw nanga nangami junni ak te nëbuñu est-ce que gis nga loolu ci xam-xam ci la tubaab bi jëlee constellateur ak filicidaire nga gis ne courant lay lakk ba noppi di seral wala gaas lay lakk ba noppi di saral waaw nee nag loolu boo leen xoolee seen leen ci digg ba loolu nag ci kéemtaan yàlla la bokk masha Allah moom daal ku yàlla jubal hmm. hmm. hmm. kookoo jub ku jubut nag dangaa ñàkk ñaar dëgg yàlla jubal kookoo jub ku jubut dangaa ñàkk ku dangaa ñàkk ñaar wàllu yoog mursid kenn munta jub te amoo wàllu yu amoo mursid waaw. loolu tax nag ma ngi lu mu sëriñ. tey mooy doon wàlli ak mursid. waaw kilifa gu lay orienté. jeex na da ngay am wàlliyu. Mhm. moo wàlli boo xam ne mursid la. Mhm. wàlliyun mursid. Mhm. falan tajida lahu waliyan mursida. macha allah ku leen amul. Hmm. mënoo jub. dëgg la foofu foofu la mbirum sëriñ soqee ko macha allah wallahu taala alam wa jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax soxna Xadi Siise nekk fële ca cité Konasap moom it nee mi ngi ànd ak yow jotaay bi كذلك بلا نبي تقول لنا لنكوك مقلا نرو ولن سين سين دا سانكي mboolem rijaal yi moo ci gën ni pànk ñu dal teeral Sénégal fa waax ba Cheikh Bamba togguloo fa Samba laax ba asalaamaaleykum <laughs> allo bismillah bismillah ah foofu ci waaw seen rajo. ah waaw na ngeen def. ñu ngi ñu ngi sant jàmm rek kay tuwaar kàll. di rafetlu waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf. di siwaare ñu ngi lay fay. ñu ngi lay siwaare man la soxna Buri Mbacke maa ngi dëkk Daaru Salaam mais maa ngi leen di woowee fii ci Amérique. waaw naka waa Amérique. ñu am na solo alhamdulilah jërëjëf. waaw am na ñu ngi jërëjëf jërëjëf Mbacke bëgg lool nag ci dugub bi. macha allah jërëjëf soxna Buri Mbacke Oustaz di wote foofu ci Amérique. bëgg nañ ci moom mbokk mu ngi tudd Marème Ndiir moom tam nga ci Amérique di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëful bu baax te rafetlu ànd gi di xaar keneen. wajal masiri misla ji wa jaan fi laajiri wal yumna wa kulli fi tamaat واكتب لي يوما بداية الأسير حقيقتي عبد وبي ترد رجيم واكتب لي سواء ما شاء bismillah oustaz na ngeen def jàmm rek alhamdulilah bamba si di mbaaxaan ñoo ngi lay siyaar baax baax yaar Mbacke maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu sëy Alioune jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaale góor gi si sa wàll sigil sa wàll. bu baax a baax bu góor yi. sigil sa wàll. Euh, xam naa ne métti na. Mhm. mais yàlla mooy jox xolu muy du dëgg. alhamdulilah. Euh, euh, Oustaz Mbacké. waaw. yow da nga aay mais il faut jaar da nga aay de. ah macha allah aayu gu ma ne. Ah. xam nga da nga jeune ba ma ma ko wax benn bés da ngaa teel a fen di kaar kaar. doomu jàmbur kenn du ko gémmiñ. waaw mais waxal fi wax ko hmm. parce que c'est très bien. man xam nga du ma gaaw a gëm. d'accord man gaaw ma gëm su ma gëmee nii rek xam naa ne kooku ay na. jërëjëf su ma weesoo. Hmm. oustaz. Hmm. yonent bi. xam nga yenn saa yi si am na laaj yoo xam ne boo koy laaj dafa ngay diigat. bi doom ji gaañoo Ibrahima. ndax li ñuy wax am na naan dafa jooy jooy yu méttee méttee méttee ba sëngëm ndax jooy na waaw ak euh, lan moo ko jooyloo. incha allah euh, gannaaw loolu aussi. Hmm. dama ñëwaat ci euh, oustaz parce que ma tontu mais téeméeri saar yi fukk ak ñeent. yu hmm. wàcc Màkka ak yu wàcc Medina. Hmm. man dama bëggoon ngeen ñëwaat ma ci daal ngeen ñëwaat ci daal. d'accord 86 yu wàcc Màkka ak 80 ak 28 yu bàkk yu wàcc Medina. waaw ngeen teqal teqal ñu ma ko teqal ñu ma ko daal. jërëjëf voilà jërëjëf. jërëjëf. <laughs> macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax te rafetlu duggam boobu suñu wayjur woowu Bamba Sidi Mbaxaan Diop mbokk mi nga tudd Andala Sall moo nga fële ci Kaffrine di ànd ak ñun jotaay bi Andala Sall jërëjëf Andala it ay dara moom it mi ngi ànd ak yow jotaay bi seen tur yi nuroo na li jërëjëf euh, mbokk mi nee na euh, sëñ Bamba saar yi nga xam ne ñoo wàcc Màkk ak ñoo wàcc Madina la bëgg nga ñëwal ko ci secret bi ci borom bi def waaw ab liste la de sëñ Mbàkke mhm. boo xam ne doon ko naan nangam nangam ba mu kii dana bari lool mhm. waaye daal ab la mhm. lii wàcc màkk la wàcc lii madina mhm. li wàcc màkk nag daf doon changer nit ñi mhm. gëm-gëm yeeg pas-pas yu baaxut yeeg wékk naa naagu yeeg yu nu demee mhm. ba nit ña bàyyi ko mu commencé nag di orienté yàlla si na amul def leen nangam yàlla si na amul bàyyi leen nangam. Mm-hmm. waaw. 86 suurat wàcc fële 28 di ci des wàcc màkk. Mm-hmm. ma dina kon. Mm-hmm. wallaahu taala alam wa shukran. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax duggam bi am na solo ak euh, contribution yu am solo yi mu ci jiital oustaz joxe am njaalam. dëgg la jërëjëf te da ko wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam. bi mu ñàkkee doomam jo. waaw Ibrahim Ibrahim. axakay jooy na. ndeysaan jooy na yonent ab yonent def noonu. jooy ba sëngéem. sërqar ba def nangam déedéet. noona ko daal ne yàlla bët yaa ngi jooy xol bi jaaxle na waaye duñ fax mukk loo xam dañ ciy mm-hmm. waaw wa inna la firaq ya ya ibrahim mm-hmm. la mahzun wallaay ndeysaan allah mm-hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz ñu ngi lay fay nuyoo yal na yàlla nangu si yàlla bro na nga def waaye jërëjëf jërëjëf di di rafetlu seen xam-xam. jërëjëf jërëjëf. Euh, sëñ Mountakha def na lu rëy. Mhm. def na lu rëy a rëy rëy gannaaw bi mhm. sëñ Touba def li mu war a def. Mhm. moom def na li mu def parce que dañ ne ay jullit. su fekkee dañoo xuloo. ci njëkk a ñëw jubóo moom moo moom moo jël moo jël drapeau bi. waaw te def na lu rafet ba mu gannaaw ba mu jubóolee ñaari président yi. loolu moom maa ngi ko ci sant ko ci gërëm. parce que nag dafa jël ci ko bàyyam. parce que mm-hmm. sëñ Abdou mooy bàyyam. Mm-hmm. boo xoolee sëñ Abdou Khadre gis nga sëñ Touba. sëñ Abdou Khadre mooy bàyyi kan. Euh, sëñ <laughs> waaw nga ne mooy bàyyi kan. sëñ Mountakha non. ah waaw ayca. non su fekkee du nekk nga dama eh, eh, mooy way juróom sëñ Basirou sëñ Abdou Khadre nag ñoo bokk lépp moo tax benn la rek. benn la rek rek la kay li nga wax lépp benn la waaw waaw benn la man dama lay kii damay bëgg mu gën a xóot rek waaye li ngay wax kay noonu la. jërëjëf kontaan naa jërëjëf xam nga démb dama jël benn ku nekk rajo rajo Walfadjri bu Touba. ma mhm. jëlee ko Pout. dafa doon dem di seetaan football tey. Mhm. ci équipe nationale bi nii. <laughs> bu roogee dem de ma koy wax sama jaar jaar man sëñ Saliou parce que man sëñ Saliou ñaari yoon laa mos a dugg Touba te sëñ Saliou laa tàbbi. Mhm. dañ taal jël sama addiya defal ma ñaan. Mhm. ba lay wax beneen affaire. waaw man bi ma amee juróom-ñaari at. Mhm. ci bés boobu la suñu fàllu nelaw. Mhm. donc man bokk na ba pare nag samay maam liggéey ak El Hadj Malick ak Serigne Touba. waaw. parce que samay maam ñu ngi Jurbel. Serigne Touba Jurbel la sañ. samay maam ñu ngi Jurbel. samay maam ñu ngi kër gii kër jërëjëf Boro jërëjëf loolu am na solo. en tout cas maa leen di ñaanal maa ngi kontaan ci jërëjëf yàlla na am jàmm ak lépp lu jërëjëf Boro ngi noonu Oustaz di wootee fële ca Thiès ñu ngi rafetlu dugam bu am solo. ñu ngi ko nuyu waa Thiès yëpp rawatina Daouda Fall mu ngi ànd ak ñun jotaay bi nekk ca Thiès. ñu ngi koy nuyu ak soxnaam soxna Astu di bég ci moom min wi jot na ba teg juróom fukki mili ak ñaar. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw bisimilah bisimilah. Abdallah Pouy Abdallah na ngeen def. maa ngi fi rek waaw kay puy puy. yaa ngi ci jàmm. Eh, wax jaar rek. Mm-hmm. Eh, bisimilah bisimilah loolu tontu nañ ci ba pare Abdallah. waaw ah, léegi. Mm-hmm. dama dama doon eh? waaw lan moo xew ba soxna soosu nga xam ne ci sóoraatul mu jaadu la. Mm-hmm. dafa ñëw jàmbat yonent bi soxlaam rek. ñu mm-hmm. ko yonent bi jantale moom mu mu mu mu jàmbat ko yàlla directement yàlla yàlla yàlla wuyu ko mm-hmm. lan moo xew ba ñun ñuy ñaan yàlla chaque jour chaque jour te mënuñu mënuñu am loolu d'accord wallaahi man laaj jërëjëf mm-hmm. jërëjëf Abdallah Pouy ñu ngi koy jaajëfal tey rafet lu duggam bu am solo boobu. ki mu ngi tudd Ndiogu Guèye Ndiogu Guèye mu ngi ci table Tiwaawan di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Ndiogu Guèye euh, Abdallah nee na oustaz euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa mel ne bu dara masaana xew day woo borom bi rek mu wuyu ko ci saasi. Mhm. ñun nag daa mel ne dañuy ñaan ba xaw a toskare mu xaw a doy waar léegi loolu lu ci lislaam wax. lislaam wax mooy ci ñun la. Mhm. inal jala inal jala inal ilaa xaribu. Mhm. wala xaribu. yàllaa ngi nii jege bay bëgg a dee. waaye sukkoonul aalamiina li xayrihi tax mm-hmm. waaw loolu rek la dëgg la mooy ñun yi nu téq alal ji mm-hmm. doom yi mm-hmm. kañaan gi wax dul dëgg soxorante gi boo ne yaara bi suñu borom di amul si jot dëgg la loolu rek la de dëgg la xad samia allahu xawla tujadilu ko fi zawjiha xeweegut ba léegi la woon ngi fi ñu ko def na woon nag ñoo fi nekkut waaw loolu rek la macha waaw jërëjëf wa shukran ci laaj na solo am na solo oustaz jërëjëf <coughs> jërëjëf sëñ Cheikh Dem mi ci Jurbel euh, mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ Bakar ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah tubaarikàllah man lama doon am benn euh, leerlu bu ma doon leerlu rek mhm. euh, fan yëpp maa ngi waxtaan fajar bi waaw ak euh, dog yi nga ci joxe ci du ci téere bi téere bi masaalikul jinaan waaw waaw mais man dama am fii benn benn boo xam ne man awma masaalikul jinaan mais mag ma moom nu rey ni la am fi ma daayu saasoon waaw mais damay xool presque si yëpp dafa nekk benn wala ñaar yi tiitir yi rek ñoo bokkul waaye benn téere la wala daal man mm. loolu laa comprendre mm, d'accord voilà jërëjëf am na solo ñu ngi koy jaajëfal baax ci laajam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Galaye Sall mi ngi ci Grand Dakar di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Oustaz ñaari ci mbindum mag ñi lay laaj rek léeg-léeg da ngay am loo xam da nga koy gis ci téere bii demaat gis ko ci beneen téere. waaw loolu lool lool loolu noonu la. Mhm. ñaari téer yi mën nañu ñàkk bokk tur. Mhm. ba noppi bokk lu ñu ëmb. Mhm. ndax da ngay wax ci dara ba ba loola jot. nga wax ko. fekk mu nga ñëw ci lële. mi ngi mel ni ki jàngal xuraan di wax fa bi ay ala bi wante ko siban muy répété rek. baat bi répété ko li ngay wax fi nag bokkut ko la nga wax fa fële. Mm-hmm. moo tax mag ñi nag buñ bindee téere dox joxe ci ay dog. Mm-hmm. bindaal beneen téere joxe ci ay dog mm-hmm. léeg-léeg soo ko seetloo mm-hmm. dog yi këli ak dog yi ki mën nañoo tolloo dëgg la tolloo ci dog waaye nag fekk na bi ñu jox kii dog bi ñu koy jox fekk na dimension sàngam la toll kee toll dimension sàngam loolu mooy tax mag ñi seen bind yi di mel noonu jërëjëf wallahu taala alam wa shukran ci laajum baam solo macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu yu am solo yooyu ñu xaar keneen aksi na asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw bismillah sëñ bi man la Ismaïla Sarr maa woote woon. léegi waaw Cheikh Ismaïl bisimilah waaw maa beneen laaj bu may laaj. waaw rek daara bi. waaw. Eh, damay dégg ñu ne yonent bi mus na. ñëw Afrique. Mhm. su nekkee lu wër la ma doon laaj ban pays réew la ñëwoon ak lan moo ko taxoon a ñëw ci réew moom. d'accord. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu sëñ Ismaïl Sarr. ñu ngi ko nuyu nuyu mbokk mi ngi tudd Alioune Ba ak Umar Ba ñu nga fële ca caajaay di ànd ñun jotaay bi. Mhm. jërëjëf Oustaz sëñ a neen dafa dégg ñu ne yonent yàlla Muhammad salaa sallam ñëwoon na muy laaj ban réew la ñëwoon ci Afrique ak lu ko fi indi woon. jërëjëf ah xam naa di man li ma jàng ci ci siira. Mhm. mooy yobaloon na ay gaa ñu ñëw Afrique. Mhm. waaw saxaaba. ña ña nga xam ñoo defoon ijra ilal Abasha. ñu ñëw ñëwoon nañu Afrique. Hmm. waaye moom ci jëmmam ji nag. Hmm. yëreguñu fuñ ne ñëwoon na Afrique. Hmm. ñaan nag ñëwoon nañu Afrique Éthiopie lañ ñëwoon. asxaabatul kiram ñoom ñëwoon nañ fi wallahu taala alam wa shukran ci laajam bu am solo jërëjëf ci tontu lu am solo li Ousmane daa sërxal ab laajam oustaz ci fenêtre bi hmm. nee na kii dafa sujjóot ba noppi dafa julli ba noppi sujjóot baax de salaam hmm. Hmm, di sikki sàkk na gannaaw ba ndax sujjóot na ko wala sujjóotu ko nan la war a def sujjóotaat ko rek la war a def insha allah wa shukran jërëjëf ñu xaar keneen ci ginnaawam bu ñëwee ñu dalal ko bajo ba teere ba keroog ba la Bamba dellu ubbi téere ba di seen mbirum duudu ma ak téere ba ubbi ko dal ci wala bi jàll bal ca keefiriin sax ko ba weesu moomi keroog la yàlla atte seen diggante ci alxuraan yàlla riyub lijjanti. walaay ndeysaan mbokk mi daa bëgg bokk. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Serigne Mbacke waaw. Ibou Ngone Mbengue yëmbal. Ibou na ñoo ngi sant yàlla baax a baax. jàmm rek kay mbeng. xanaa kay di rafetlu jotaay bi di wax ni ñoo ngi koy ànd ak yéen guddi bu nekk. guddi daal jërëjëf jërëjëf mbeng. wax dëgg yàlla di jaajëfal Oustaz Sall ci tontu yu leer yi. jërëjëf. waaw xam naa dañuy taxaw foofu rek doon yëglu rek. Mhm. di nuyu waa soppe si defam yëpp di wàcc foofu suñuy kàddu ba ëllëg ak incha allah ñoo ngi leen di xaar <laughs> jërëjëf Ibou Ngone Mbeng di wootee foofu ci yëmbal ñu ngi ko nuyu baax a baax ki mu tudd Sayar Kan taalifkat la mi ngi ci Kolobaan di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf tubarkàlla ñu ngi koy mm. béggee baax a baax mi nu jënd ba teg juróom fukki simili ak juróom-ñett wutal ma ndox mu laab ak saabu mooy tukloor ba daan commandé poste ba ba maa taxoon ba faatuwul ca peste ba moo ko fa daa rootali di buy ay satalaam di doxi ay soxlaam di jokkante salaam du ma mbay aaya ko rootal bamba ngir bon nga ak kañaan dafa yomb ma nga naa ko dégg service bu nekk ak sa talaam nay mar di xiif bu mu lekk si dee nga naa ko lépp luñ ma fayati ci sama weer moom laa ko faf di joxati keroog la du du mere di maa bokk dal koy fetal mu mooy badal bawaabu ànd dem la yoo ji kër gouverneur ñu déplacé Duudu Bamba mooy góor mu ñaani d'appel waa jafar interdit ñu daldi koy licencié njool ma perdi ca moomaat la mujj def commandant ba na mu dee fa mu tollu dekke dang dang Seex Bamba fam li yónni Sidi Maabo Seex Bamba fam li yónni Sidi Maabo mu dolli far jébbalu def ba waabu Seex Bamba jàll réew mi yomba wariw ma naa bu leen fi indi Bamba tataaw Chakor ngoog bu jë bu géej gi tabarkallahu sëñ Moussa Gueye moo ko yëkkati bu ndar tabarkallahu di wax fi jaay sëñ bi jaaroon ci biir géej gi yëpp 88 la 628 des nañu 30 minutes ah, Seexi Bamba sax Bamba jur na fa ñaaru rakk jaayante faak xayru wala njool màkka bayaxtu hoo fi baari taata sajara wal baaxru musbidun waaw li fajara ñu fab ko yóbbu ko dunu maa yomb mook njaay si bawlu bamba àlla bu la di buri bari xilam lool njuuma yaa ki suri kii wallaay ndeysaan mbokk mi daa bëgg bokk ne ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Babacar Diakhoumpa. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar. namoon nañ la di. waaw maa ngi raw di nuyu Oustaz Alioune Sall bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay. di wax mention spéciale keroog si Massalikul Jinaan bi. ndeysaan. waa te ngeen yëpp kontaan nañ keroog. jërëjëf. di nuyu Oustaz Alioune Sall bu baax a baax a baax. mi ngi lay fay. ci wax aaya ah, tabaaraka la jigéen yi muus laa bëgg mu ñëwal ma ci rek. alhamdulilah. jërëjëf nuyu ma ko bu baax a baax. jërëjëf Babacar Diakhoum po di wootee ca Tëngéej. ñu ngi ko nuyu nuyuwaat Tëngéej yëpp mbokk mu ngi tudd Dieye mu nga fële ca service d'hygiène bu Tëngéej di ànd ak ñoom jataay bi. jërëjëf Dieye ñu ngi koy nuyu Babacar nee na tabaaraka alladi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in xadir la ba nga ñëwal ko. jërëjëf ci laaj maam solo boobu sunu borom mooy wane foofu boppam di wax ne moom mooy ki nga xam ne eh, ci loxoom la. dee nekk ci loxoom la du nekk te lu nekk la man mhm. ci laajam bu am solo bi mbokk mi daa bëgg a bokk wala boog ñu xaar ko ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ñu dellu leen dugal saxaar ca yoor yoor bisib di beer ñu jàll romb wiir wiir ñu bool leen ñoom ñaar ci diggu bël ba ñu ne fa cundum faaf ca diggu dum keroog la seen xërëm ya ser di yuuxu jinne ba xaa bambaay seexu keroog la bamba xul bu géej ga yaa baxru waxit laa du salis géej nga xamal nit ñi dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wayin min sey bul ko sikk kun sa tura bi mos bul duusu lu du ragal yàlla mi tax ngay duusu wa sax bi a neeb doo xet sa baa bu dul man masta jaamoon a baa ñi nga fi daal labal dañoo mooy yàlla man ma suma mooy yàlla la. ndeysaan mbokk mi daa bëgg bokk ne ko. Ah, asalaamaaleykum. bisimilah bisimilah. jërëjëf. ok. Eh, bisimilah mi ngi lay dégg. Ah? bisimilah Oustaz waxal ak moom. maa ngi lay dégg waaw way. waaw ah, Oustaz. Hmm. jàmm nga. jàmm rek. waaw kañ bëggoon naa jot sa numéro de. su laajte la mënuma laajte si antenne bi moo tax. baax na bu ñu noppee rek nga woote ci numéro 33 825 18 30 ki nga fekk jox la ko. ngoo ko ñu jaajëfal ko bu baax mi ngi noonu bu ñu émission bi jeexee da ngay woote ci vingt 33 825 18 30 daañu la jox numéro Oustaz incha allah. ak nooru tamti ñooñoo fa daan saare bamba wiir wiir sax bambam juróomi at maa yomba kenn waxatul samba ki dem bamba foofa la samba laa ba bamba jàll ànd ak jinneem waay daa ñu imaam olawlu yaay waxul bu lakta bindi las fi yaay waxaadi mun wallaay mbokk mi daa bëgg a bokk Baye Moussa Guèye génn na waaye ñu taaxeerluwaat keneen ki ñëw ci ginnaawam na delsi ko naa ba mu xëyee ba mu xëyee di wéy la xuus ci bul ba romb wallaay ndeysaan asalaamaaleykum bismillah bismillah waaw jaaram waaw koy bismillah leen di bu baax a baax. alhamdulilah. di leen nuyu di kontaan ci jotaay bi. alhamdulilah. di nuyu Oustaz Mbacke ci la Oustaz Alioune Sall bu baax dina sàppe boobu. jërëjëf. di la ñaanal fan wu gudd gànde wér gu yaram rek. amiin yaa rabbal aalamiin. Uh, kon jërëjëf dañoo andi woon suñu siyaar rek di leen wax chaque moom ñu ngi leen ah, ci bi nii sax baax na ci de doom sax ci sot la bokk mm-hmm. <laughs> jërëjëf ñoo ngi bég bu baax wax ci noonu mu àndee ñun jotaay bi asalaamaaleykum allo salaamualeykum. maaleykum salaam. bisimilah. bisimilah sëriñ bi. allo. allo waaw ku baax ñu ngi lay dégg. yal na yàlla nangu siyaar. waaw di leen baal wax di ñaan ngeen baal ñaax. yal nañu yàlla boole jéggal. waaw ñu ngi leen di teewlu di sant ci bu baax. jërëjëf jërëjëf. ok. Mm-hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ci siyaareem yooyu ak te àq la indi woon Modou Mbacke Ndoye ma nga fële ca Touba di ànd ak ñun jotaay bi ñu koy nuyu di nuyu waa Touba yëpp une heure jot na ba teg juróomi simili ñaar fukki minute ak juróom def na ci jotaay bi kenn ñi nii di ñëw asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam man la Thierno Niang Niang Thierno Niang maa ngi woote wi louis sëñ Thierno naka waa Ndar allo waaw bisimilaa sëñ Thierno waaw Thierno Niang waaw maa ngi wootee Ndar. naka waa Ndar. rek. jàmm rek kay bisimilah. tubaarkàlla tubaarkàlla. waaw kii laa mi ngi lay dégg. ah, ah. yaa ngi en direct yaa ngi bitim réew yëpp a ngi lay dégg. ah waaw. Hmm? waaw léegi dama doon laajte. Hmm. léegi euh, lu tax euh, waaw ah, loolu laa am dara sànga te eh, eh, ah, waa yonent bi danaa mhm. waaw. baax na jërëjëf jërëjëf Thierno Birahim nuyu ñu waa Ndar yëpp. Matar Ndoye ngi ci Jokkul production. di mhm. ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Mhm. Eh, sëñ Thierno nee na Oustaz lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñëw wala ñëw na ab diir sax te dañ daan jëfandikoo sàngara. muy laaj nag lan moo tax ginnaaw ba ñu tere ko. tax ñu tere ko de sunu borom wax nañu ko. innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun nee na sàngara ak carte ak gisaan ak jàmm xërëm rijsun sobe la sob ñoom ñeent ñëpp ay sobe lañu muy benn ne amali cheytaan ci ci jëfi cheytaan la bokk muy ñaar mu dem ba ci biir mu ne innama du cheytaan an yooxaa baynakum al adaawa cheytaan da bëgg dugal ci seen seen diggante mm-hmm. daf cee bëgg dugal ak noonoo bëgg cee dugal ak mbañante mm-hmm. bëgg a dox seen diggante nafar alxuraan mm-hmm. juróom yi bokk na ci li tax ñu aay ñeent yi looloo tax ñu aaye ko wala taala alam wa sukkuraan ci laajë bu am solo bi jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal ci tontu dugg am solo boobu ak tontu lii di la xaar di xaar keneen ci ginnaaw di gaañ naa ko mais keroog la jaay gi sëg moo di ànd ak Brahma Siise ni waa lux dooni seex nañu seex bamba no seen ruuya jëbal ko bamba boole kook seen jooya saamoo ni ko keroog doomam ja ahmadu saamoo di la moog ndeyam ja saranki mooy ndeyam ja gis na bamba seen xabru yaa nga foofa waru maa yomb seex bamba romb leen fi wéy baru wali keroog la way adaayi xuru fa daayili wala tabaskee mooma at bil iidi roo fi xat kuroo la way saa moo di waj iya tegal saa xur la way keroog làq na xayra xur bi nee jox nañ ko mboolem yool yi ña aji umra jaari ka rasuuli dafa ani naafiu fii li bal wali xablu bi maa yaabituni kul mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah. yaaram. ah Oustaz Mbacke. Hmm. Xaadim Mbaw la seen sopp. waaw kay Mbaw. ah, ah eh, si ñu ngi ziara bu baax a baax di rafetlu seen waxtaan. jërëjëf. di leen ndokkeel baax a baax yaa ko Oustaz Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf mi ngi lay fay. di leen ndokkeel bu baax baax Oustaz tamit ñu ngi lay Oustaz Alioune eh, Oustaz ñu ngi lay beral nuyoo keroog tamit ci Masaalikul Jinaan yi. jërëjëf jërëjëf. Eh, yaa ko Oustaz Alioune Mbaye seen taxawaay wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko. alhamdulilah. kera réseau bi moo xawoon a naqari waaye wax dëgg yàlla li nga doon wax moom amoon na solo lool yàlla xam na ko. jërëjëf jërëjëf ñu ngi la ciy ndokkeel di ñaan yàlla def ko sa téere jëf. jërëjëf. di ndokkeel sa Alioune tamit bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi rafet lu baax waxtaan bi. jërëjëf di ñëpp euh, xam naa bëgg naa oustaz ñëwal ma ci sóoratu Yuusuf rek. tuuti hmm. rek ci aayu njëkk yi. Hmm. waaw Yuusuf ci aayu njëkk yi rek. baax na ñu ci ñëw léegi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal tey lu duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Pape sëy mu ngi fële ci université si université Gaston Berger bu Ndar di al ñun jotaay bi. jërëjëf mbokk mi di sëñ Mbow euh, alo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah. dafa génn waaye ki duggoon léegi di sëñ bi saa suratu Yuusuf la doon wax nga ñëwal ko ci aaya yu njëkk ya nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awxayna ilayka haada alqurana wa in kunta min qablihi la min alxaafin waaw waaw bi yonent bi di woote mhm. woote bi métti ay mbokkam weddi ko mhm. ay doomi baayam ki doomi ndeyam ñëpp weddi ko mhm. sunu borom ne ko dama laa bëgg jàngal ne la genn gone goo xam ne yaa ko mag ko mag waaye teewul ba ko ay mbokk mu ne ginnaaw weddi ko. dafa dëgër këng. ba xëy nekk seen sang. looloo waraloon nettali xisa Yuusuf. waaw looloo war a nettali xisa. Mm-hmm. ba ko nettali ba noppi. Mm. yonent bi jële ci dëgër goo xam ne gi mënut ko jël ci feneen. wallaay nekkoon lu wees tey. luutu mm. mu am ko waxuma laa di jooy. wallaahi est-ce que wallaahi ndeysaan. Ah. est salaam. yaaram. noo def waay. jàmm rek maa ngi wootee Cap Skirring. naka waa Cap Skirring. sant yàlla. ci jàmm bu baax a baax. maa fa est ce ma waxal bi. bisimilah <laughs> suñ suñ mbokk mi ci Cap Skirring. maa ngi koy wër de tur waa ngi nii kay akam maa jege waaye xam nga léeg-léeg bët li ko jege dëgg du ko gis. <laughs> waaw yow mii léegi mën naa jàpp ah. émission boobu yàlla xam na ne jàpp naa ko lool sax kay xanaa daf maa kii rek. Ah. dootuma ah. ko dootuma ko dootuma rëccati dégg nga maay sa ambassadeur Cap Skirring. waaw waaw loolu moom wér na booy. booy <laughs> bu lay fàttali rek ambassadeur. booy booy booy. <laughs> waaw dégg <laughs> waaw sax man dama doon laaj mbirum dëkkandoor keroog dëgg naa ngi waaral. Mhm. man daa am ñi ma dendal fii. waaw. mooy suñ place ñoo jàkkaarloo. Mhm. léegi dama gis ni bu may jàpp nii damay moom daf may xoole bët quoi bu may jàpp. Mhm. pour julli nii. léegi dama doon laaj ndax loolu baakaar la wala du baakaar. ak tooñ na ko tooñ jëkk <laughs> jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax rafet <coughs> rafetlu dugam bu am solo boobu mu booy kap sa kiriñ mbokk mi njinde géey la ak yaa faatu ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci tiwaawoon pël di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu bentali di nuyu waa tiwaawoon pël yëpp <laughs> tuwarkal la eh, mbokk mi de Oustaz ci wàllu dëkkandoo lay wax mm-hmm. eh, ak yu demee noonu nee na daal bëgg na nga ñëwaatal ko ci waaw eh, ki nga xam ne da ngay jàpp mu lay xool mm-hmm. ah loolu du dara koy jàppal rek ginnaaw jàpp farata la mm-hmm. ndax maa laaytum laaj bi waajibu illa bi hu waajib mm-hmm. ngay jàpp pour julli mu lay xool mm-hmm. xool li mu lay xool yàqut ak dëkkandoo mm-hmm. jàpp ngay jàpp itam yàqut ak dëkkandoo wa shukran ci laajam bu am solo bi jërëjëf ci tontu lu am solo loolu ñu xaar keneen ci ginnaawam saa di ñebe ànd saara Kiremon ak Zahra yendu caawo ndaw jaxasoo bambara ne teg caawo. mii bëgg a bokk ci jotaay bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw waaw. waaw kay Sankharé. da yi. jàmm rek nii naa soog waaw. mbokk am na fu ñu beneen aaye pour cigarette cigarette. cigarette parce que dégg naa ay Maroc Tunisie Égypte dañuy toog bu guddi ba nga def ko rek dugg. Mhm. yooyu yooyu mhm. cigarette est-ce que am fu ñu ko bindee ñu ngi ko tiiree dama mhm. dégg ñu dégg sip sip la ñu laa dégg sip. mais mais mu leeral ñoo ko cigarette. d'accord jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy nuyu tey bekki gëm bu am solo boobu mbokk mi alxaaji oustaz Codé Sock la tudd mu ngi fële ca Grand Médine di ànd ak ñu jotaay bi ñu ngi koy nuyu baax a baax soxna sëñ Codé alaaji ñu ngi lay nuyu tey nuyu soxna si mhm. euh, wala soxna yi mm-hmm. <laughs> ndeysaan mbokk mi neen oustaz cigarette la bëgg nga wax ko wala tux ci boppam la bëgg nga wax ko moom bu dee araam na ndax daa am aaya bu koy araamal wala déet waaw illa yi alquran di jàng ba ne dàngam daa araam mm-hmm. buñ nattee cigarette mu jox ñu ko rek mu araam buñ ko nattee joxuñu ko nag ñu sib ko waaw bu alxuraan ne wala tulxoo bi ay dikum ila tahluka maanaam bu leen xaru wala wala taxtul anfusakum bu leen xaru bu leen xaru ñu gis ne ku tux benn cigarette am na lu muy dindi sa dund ñaar yu noonu ñett yu noonu dañu xool su fekkee lor yaa lor yooyu muy tere ma nga ca moom ñu teg ko ci lu xaraam bu fekkee benn loraa ngi nekku ci nag ñu teg ko ci lu sib loolu rek la waaye du wax nag inama cigarette ndax bu ne inama cigarette tuurul cigarette ba mu tudd ba ca des day day day day day day dagan waaw wum dàq rek ba ca des wum dàq rek ba ca des moo tax bi muy aaye sàngar dafa ne inamal xamru baatu xam rek la def waaw rek lépp dugg ci biir cigarette noonu la waaw moo tax kon bu buñ nattee daal gis ne day lor day yàq alal day yàq ak wér-gu-yaram ñu gisee yooyu dañ naan kon ka daa xaraam bu fekkee ne du lor du rey du yàq alal su boobaa ñu ne kon dañ ko sib léegi nag nattukaay bàggu na nag ku nekk ñun natt borom xam-xam yi ñoom ñoom kase ñoom seen yooyu yàlla na ko yàlla yokk wér ñoom dañ am nattukaayu ndax cigarette dana lor wala du lor wa shukran léegi nag waa ak waa Maroc waa Makka loolu nag loolu nag du du du diine du nattukaay du nattukaay du ci araam ak dagan ndax waa Màkka nga koy def déet mu ngoog mhm. ndax waa Màkka fi ne suñu bàkk ñoo gën a sonn ci àdduna si mhm. ci buntu jàkk yonte bi la ñuy bind na cigaret day rey mhm. ndax bëgg ñu bàyyi ko waaw yonte bi nag dafa xaw a bokk ci seen aada mu ngoog culture ñu weex ñi yonte bi nag mosu koo def mukk mosu dëkk ku koy def amul ci saaba yi ñu ko doon def ñum kenn daawu ko def moom daf daan wax sax ne ku reere lu xasaw mbala boog lu xeeñ lu mel ni sobleeg laaj bul julli si jàkk ji waaw ma ne xam naa bu ñëwoon boo moytuwul xetu cigarette doona ne woon sori leen jàkk ji mm, masha Allah am na ko nekk nii asalaamaaleykum kooku génn na ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di xaar keneen ci ginnaawam defe nañ fukki simili ak eh, ñeent ngir ngeen ànd ak ñun jotaay bi خديم عاد قد أدان سارا إن المهاجرين والأنصار لن يعبدوا يهود والنصارى ndeysaan wa nasaara eh, ñu jégglu ko xaaraat ko eh, bu ñu dalal ko asalaamaaleykum waa kay ñu fab yanam ba asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Alaaji Gueye Trento. Alaaji naka waa Trento. ñu ngi ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. tubaarkàlla baa yéen ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax a baax. incha allah ñu ngi ziar di la di ziar mbokk yi ñëpp ñuy déglu nag. jërëjëf jërëjëf. di yónnee nuyoo soxna Oumy si ak Serigne Ngerte Bolzana ak Serigne Baykan. Mhm, jërëjëf. ginnaaw loolu moom xam naa tey dañuy dugg di barkeel rek di ziar noonu ak di indi ay tuuti. la ci ci ci wax ngeen doon wax xibaaru daara ji rek. jërëjëf. ñu toll ci li nga xam ne mooy école bi surtout nag école bi man de moom ma ci gën a metti moom. Mhm. ndax école boo xam ne dañuy bàyyi ba mu tijji tay tay tey tey ju doogay xam ne saal boo xam ne tëj nañ ko ñetti weer. Mhm. su fekkee ni dañuy jàng tey. Mhm. waxuma la dara waaye ay xale yu ndaw di ca nekk ak ni mu wóoree ndax saal bu nu tëj ñetti weer ubbi ko tey bàyyi kaak ay xale nu koy bale sax lu ne ci biir. loolu wóoradi na wóoradi goo xam ne te at yi yëpp moom la ñuy wax ni. Mhm. noonu la neneen dañuy ubbi tey jàng tey te at yi yëpp li li xew tey jii. Mhm. moo xewoon at yee ci ginnaaw te jàngatuñ ci dara. Mhm. bala may gëm ni nag am na président bu boo xam ne man gëm naa ni kii président la te dara raxu ko. ministre bu ko def def bu la ko jëlee rek teg fa keneen rek ma xam ni. am na président ndax lii amoon na daaw amoon na daaw ji am na ren te bu déwénee incha allah day amaat bu soobee yàlla. fekkaat eh, lii leen waxaat. dëgg la de solution la de. waaw kon nag kon noonu liñ ci war a taxaw ba jàngatu ci ba léegi. <laughs> mooy lu tax ku ko def kenn du la wax dara. Mm-hmm. ministre bi def nag kenn waxu ko dara dara fekk ko ci ba léegi. mais nee na lu lu normal la daal. ndeysaan. te te du lu lu lu jéggi daay la ndax école bu ñu ko du dañ koy tëjaat ba école tëjaat ba ba ñetti weer yàlla école tëj. ndeysaan nga bàyyi ba mu def in semaine. Mm-hmm. nga ñëw nii da ngay defar école. jërëjëf loolu loolu xam ay ay lu kenn xamul la dafa mel ne naxante laan daal te mag ay mag duñ naxante. dëgg la de. ay jaay taw bi yàlla na yàlla di yërëm li al ustaas bi fa daal yàlla na yàlla yërëm. amiin ginnaaw loolu tamit ñu ngi ñëpp ci safar gi di ñaan yàlla yàlla yóbbu ci màggal ci jàmm di ñaanal sax suñ mënu suñ mënta xaar mu yàgg lool ànd ak wér. jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ñëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf alaaji Gaye Tourento ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi alxaaji moom di Lamine Sène la tudd mu nga fële ca Ndoomoor di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu moog waa Ndoomoor yëpp alaaji Gaye di indi na am jàngatam oustaz ci uh, ubbite école yeeg ubbitey jàngate yeeg ni ñu koy waxee te muy fanqu waaw ubbitey jàngate daal suñu bàkkee hmm. dañu war a teg wax jëf fële te di ko def hmm. nañ teg wax ja fële hmm. te jéem di ko def bu école tijjeetee ñu defar ko ba mu baax. bu ñuy école tëj na trois mois yooyu ñu defar ci école yi ba nga xam ne bu xale bi dañuy ñëw rek toog jàng. kon nañ bàyyi wax ji te di ko def. mu jox tàkk. tabaarkalla ñu jaajëfal ko baax xaar keneen ci ginnaawam. la dentanaan kalaame. seex yi baawal ngir bëgg fay lislaami. jan baat ba moo jëblu woon dem tuubi ndem di jooy. bi eh, <laughs> asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. yaaram. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. waaw maa ngi yaa ngi yaa ngi en rajo boobu ngay déglu rek te tàmbalee wax. waaw waaw non bàyyi naa rajo bi. ah kay bisimilah kon. allo. bisimilah yaaram. waaw dama doon kii rek man ci Alioune ci boobu dafa am benn sama benn eh, jigéen bu baax kii la restaurant. Hmm. mais ko bëgg la ba pare dama la benn question. waaw. maaleykum salaam. sëñ bi yow la ñuy déglu bàyyi sa rajo bi ta wax man ndar moo woon maa ngi dëkk ndar Thierno Niang laa dëkk. waaw. waa léegi soo jàng alxuraan. nga hmm. nekk tout tànk. Mm-hmm. waaw nga nekk tout tànk. sëñ bi yow rek la déglu. sëñ bi bisimilah waaye léegi da lay dóor pour ngeen moo ko alxuraan baax na wala baaxul nga nga day tër. da dóor nga naka moo ko alxuraan baax na wala baaxul. d'accord. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu dugam boobu. mbokk mi professeur Songe mu ngi ànd ak ñun jotaay bi te nee na di ko rafetlu. jërëjëf ñu ngi koy nuyu moom itam professeur di la wàccee sa wàccuwaay. Mhm. mbokk mi nee na ndax kiy jàng nit alxuraan di ko dóor ndax bëgg mu mokkal lu ci lislaam wax. waaw bu fekkee dóor yi du dóori gaañ. Mhm. du génne deret. Mhm. du dóori toroxal. dara nekku ci. waaye dóori toroxal bëgguñu ko te mooy di ko dóor ci kanam ay nawleem. loolu bëgguñu ko. di ko dóor ba génne daratam bëgguñu ko di ko dóor ba mu tërgën bëgguñu ko mhm. yooyu bëgguñu ko ci mhm. waaw loolu daal mënati naa jàngal nit ba noppi ba jàng ma mokk te duñ ko def noonu mhm. wa sukran ci laajëm ba solo bi jërëjëf ci tontu lu am solo li ñu jaajëfal ko bu baax xaar kii asalaamaaleykum maaleykum salaam bisimilah ah, waaw ah, ma jël lu mel ni classe ma baax ko bi may jàpp ma jàpp waale ci kawam. après am benn côté boo xam ne daa commencé woon a xolleeku. xolli ko. daal di dagg foofu noonu. après ma doon laajte ba xam ne jàpp li des na foofu wala. waaw wala manqué na. d'accord ci ñëw léegi. ñoo ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo boobu. mbokk mi Omar Diallo la tudd ma nga fële ci Ziguinchor di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Omar ñu ngi koy nuyu mbokk mi dafa doon jàpp waaye ci tànkam dafa am fu dagg doombut ñu bànd ko wala yu deme noonu. Hmm. nee na daal euh, euh, nan lay jàppee moom. waaw boo jàppee baax si cër boobu da nga koy masaa boo jàppee baax si cër boobu doo ko ragg ndax comme dañ ko bàndee te dafa am góom. Hmm. boo ci defee ndox mën naa am nga gaañu da nga koy masaa Mm-hmm. tooyal si ñaar loxo rek jaar na ko ci kaw ci suuf. Mm-hmm. wala ta wala ci kaw wala taala alam wa shukran. bisimilah asalaamaaleykum waaw ñu jaajëfal ko bu baax a baax. Mm-hmm. dese nañ juróom-ñetti simili ci jotaay bi. laa yooyu woy si am kulu fi lan faali la yàlla jox jibrilu bilaawaali ba maa ko jox maam seen wa firiwaaya